ci soxna jaara di ci jiital sëriñ Isxaaqa Mbàkke moom sëriñ Basiru ak mbooleem jëwriñ yi di fàttaliku sunu jàmbaar ja soxna Ayda Njaay Badaloo rahmatullahi alayha ak mbooleem jëwriñ yi wàcc liggéey yépp te nekkoon ci toolu soxna jaara bi yàlla sunu boroom dolli leen njéggal ak yërmande ci barkeeb soxna jaara radiallahu anha gannaaw loolu nu fas yéene jibluwaat ci liggéey bi nu baaxoo ànd ak yéen ci waxtu wii te moo di jëfal leen kañ leen xamal leen ne li ngeen doon liggéey di ko jébbal seeni jëwriñ ngir soxna boobu ak si na ci sëriñ bi mu defal leen ko ci daara ji ni ñu ko daa defee nag moo di tudd daayira yi maam jaare yi ak seeni jawriñ wax seeni adresse ngeen baal ma nag danaa koy faral di wax rappel bii mooy ñetteelu rappel ndax kii def te yàlla rek tax mu tax koy def soxlawul ñu tuddu turam loolu ab rappel la ñaareel bi ki joxe haddiyaam ñu jox ko tontam xam na ne haddiyaam yëgsi na te loolu mooy carte verte wi ngeen di jël ñu di leen ko weccee ñeenti téeméer ku jot ku rek mooy firndeel na ci ak ci ne bi wu ñu leen jox muy wu mag wi mbooloo mu jot ci kar foowu firndeel na ne seenub liggéey agsi na rappel bii nag ni ko sëriñ Muntaxa di waxee jamono bi nekk dañu leen koy kañe di leen ko soññe di leen jottali cantuk sëriñ bi ak ngërëmam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 bu toll noonu ci salaatu ala nabi ñu def ko addiyee soxna jaara loolu nag misaal la rek ku am million na fexe ba ñi def million ci salaatu ala nabi daayira bi mbokkum jullit mi ko taxawal am na ci ndigal ndigal bu baax danañ ko gën a yaatal insha allahu taala kon mu jubli ci liggéey bi ni nu ko fas yéene defe ren mooy tey jii da ngeen dégg daayira maam jaara yi nga xam ne ay individuel lañu te mooy daayira maam jaara dëkk sàngam ci njiitul diw sàngam bu ko defee nag bu ëllëgee insha allahu taala nu ñëw ak yéen ci fédération yi ak li des ci daayira yi noonu lañ ko fas yéene taxawale nu ci xaaj ak yi ñuy tànn ni ñu ko bind rek noonu lañu koy waxe te ñi ko bindit ni ñu toftaloo rek noonu lañu koy binde ki fi jëkk ak ka ca tege ak ka ca tege ba mu yegg noonu lañu koy e, tàmbalee ñi nga xam ne ñoo bind woon la tàmbalee janvier deux mille dix neuf ba ci at mi décembre deux mille dix neuf ñi bindu woon ci jamono jooju ñoom lañ fas yéene lim insha allahu taala daayira maam jaara Touba daarul minan soxna astu mbàkke bintu sëriñ muntaxa daayira maam jaara Touba daaru salaam tiib soxna ami Diop daayira maam jaara Touba daaru salaam tiib soxna gàdd mbàkke daayira maam jaara Touba daarul minan soxna jabaara mbàkke bintu sëriñ muntaxa daayira maam jaara Touba ndaamaaku soxna maam bu sa jaaxo daayira maam jaara Touba bustaan Mbacke soxna Faati Lo bintu Serigne Maxtaar Binta daayira maam jaara Touba daarul manaan soxna Ndey Mbacke bintu Serigne Cheikh Awa Balla daayira maam jaara Touba kër alhaaji Mbañik soxna Xemes Seen daayira maam jaara Touba Cissé soxna Marème Jaxate daayira maam jaara Touba Mbacke Bawol soxna Moora Faal daayira maam jaara Touba daarul minan forage soxna Xadi Mbacke ak soxna Fari Seck daayira maam jaara Touba Tiwil soxna Mbayang Mbeng daayira maam jaara Touba Moské soxna maam Busa Mbacke Fadilu daayira maam jaara Touba Samsam Guèye soxna Gañ Siri Dieng daayira maam jaara Touba Daaru Tansil Busra soxna Maymuna Mbàkke bintu Sëriñ Muntaxa daayira maam jaara Touba Cameroun soxna Faati Amar daayira maam jaara Touba Burkina Faso soxna Ami Thiam daayira Wakkaana Xaqan Touba Malaga Espagne soxna Yaasin Diouf daayira Subula Salaam Touba Tramo Italie Sëriñ Ale Lo daayira maam jaara Touba Alicante Espagne Sëriñ Baara Ndiaye daayira maam jaara Touba Kuraku Sëriñ Basiru Silla daayira maam jaara Touba Guinée Conakry soxna Ndey Jàllo daayira maam jaara Touba Walba Espagne Sëriñ Mbay Jóob daayira maam jaara Touba Angleterre soxna Sooda Géey daayira maam jaara Touba Rimini Italie sëriñ Moussa Gay daayira maam jaara Touba Njoobel soxna Faama Ngom daayira maam jaara Touba Xandan Toob soxna Ngóone Njaay daayira maam jaara Touba Géel Mbeng soxna Ngóone Jenn daayira maam jaara Touba Looyeen soxna Ami Joom daayira maam jaara Touba Ñalooy Maroon soxna Nagoy Njaay daayira maam jaara Touba Yeesaloo Italie soxna Faati Njaay daayira maam jaara Touba Asalem Padoa soxna Ndey Géey daayira maam jaara Touba Taalen Gay soxna Fatim Njaay daayira maam jaara Touba Tawfeex Thiara Gueye daayira maam jaara Touba Ndiax soxna Binta Dia daayira maam jaara Touba Warak soxna Mbenn Sëy daayira maam jaara Touba Ñoomeen soxna Baan daayira maam jaara Touba Ngayen Mamar soxna Anta Gueye daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Joor Mbay daayira maam jaara Touba Pikine Tali bu bees syndicat soxna Bintu Gueye daayira maam jaara Touba Jàmmagën soxna Matika daayira maam jaara Touba Grand Dakar soxna Awa Thiam daayira maam jaara Touba Yarax Dakar soxna Issa Mbay daayira maam jaara Touba Bustaan Séréer soxna Njóoci Thiaw daayira maam jaara Touba Mbakke Gundaw soxna Maram Jeey daayira maam jaara tuuba noota guy jama soxna xujja jóob daayira maam jaara tuuba yoonu daaru rahmaan soxna mbenn siise daayira maam jaara tuuba sagata geet soxna faatma jóob daayira maam jaara tuuba daaru ka soxna ayda njaay daayira maam jaara tuuba soxna jaara njaay daayira maam jaara tuuba mbengeen jawaar soxna aji cekka mbeng daayira maam jaara tuuba daaru salaam condox soxna daba njaay daayira alminnatu wal xayri tuuba daarul manaan soxna faati sàmb daayira maam jaara tuuba nduuréen soxna ndey njaay daayira maam jaara tuuba mirina baxaar soxna bintu mbàkke daayira maam jaara tuuba nooru laahi Faty soxna Sali Seck daayira maam jaara Touba Oka soxna Faty Gueye bëgg Serigne Bamba daayira maam jaara Touba marché maam Binte Serigne Bassirou Fall daayira maam jaara Touba Bayax soxna Batour Amar daayira maam jaara Touba Madinatu Salaam Saam soxna Khady Thiam daayira maam jaara Touba Guédiawaye amoo kaar soxna Maymuna Mbay ak Serigne Mouhamadou Gaye daayira maam jaara Touba Jamatil soxna Ñanga Fall daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Roqaya Jaxate daayira maam jaara Touba Thiamène soxna Mbal Mbeng daayira Matlabul Fawzayni Mballaxo soxna maam jaara Lo daayira Busra Dakar soxna Faati Mbay daayira maam jaara Touba Ndourène soxna Mbenn Gueye daayira maam jaara Touba Musoobe soxna Xadi Silla daayira maam jaara Touba Ngambugil soxna Sooda Jaañ daayira maam jaara Touba Ngaay soxna Asku Jiite daayira maam jaara Touba Daaru Siise soxna Mati Siise daayira maam jaara Touba Kër Muso Ñang soxna Daba Faal daayira maam jaara Touba Atmaan soxna Daba Gaye daayira maam jaara Touba Caarje Mooy soxna maam Faati Jóob daayira maam jaara Touba Tindóodi Matul Manaan soxna Ramata Mbeng daayira maam jaara Touba ñoom rek soxna Aji Anta Njaay daayira maam jaara Touba Kër Madumbe soxna Xujje Cubb daayira maam jaara Touba Mbey Mbawor soxna Mbenn Sàll daayira maam jaara Touba Njaween Cubb soxna Mati Jaw daayira maam jaara Touba Tundu Géej soxna Màggat Ba daayira maam jaara Touba Daaru Ka soxna Ayda Njaay daayira maam jaara Touba Daaru Njaay soxna Aram Njaay daayira maam jaara Touba Guy Mbaam soxna Naar Top daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Faati Mbaykan daayira maam jaara Touba Kaajël soxna Faati Kine Mbeng daayira maam jaara Touba Guédé 2 soxna Mbène Ndiaye daayira maam jaara Touba Kër Njaga Mbay soxna Afsa Mbay daayira maam jaara Touba Bonja soxna Faati Sow daayira maam jaara Touba Cey Cey soxna Faati Jabaay daayira maam jaara Touba Paweya Italie soxna Coro Diouf daayira maam jaara Touba Tobbi Diop soxna maam jaara Jaañ daayira maam jaara Touba Marché Ocass soxna Soda Touré daayira maam jaara Touba Golbi Ndiaye soxna Mariamu Fall daayira maam jaara Touba Mbalkan soxna Faama Wadd daayira maam jaara Touba Daaru Bogo soxna Njaane Ñang daayira maam jaara Touba Kutum Bene soxna maam jaara Sekk daayira maam jaara Touba Tindóodi soxna Faati Jeng daayira maam jaara Touba Daarul Xadim soxna Faati Lamin Jóob daayira maam jaara Touba Daaru Njaay soxna Mariyatu Wadd daayira maam jaara Touba Kawsara soxna Xadi Coon daayira maam jaara Touba Daaru Njaay soxna Awa Faal daayira maam jaara Touba Pomari soxna Kinne Jóob daayira maam jaara Touba Daarul Manaan deux soxna Xadi Ja daayira maam jaara Touba Teenu maam Cheikh soxna Bintu Jeng daayira maam jaara Touba Surra soxna Faati Baran Loo daayira maam jaara Touba Saam soxna Ndikke Lay daayira maam jaara Touba Guy Jama soxna Caan Njaay daayira maam jaara jaara Touba Nasrul Asi soxna maam Faati Mbàkke daayira maam jaara Touba Tawa Faal soxna Isa Faal daayira maam jaara Touba Daaru Salaam soxna Mbende Touré daayira maam jaara Touba Jàmm Gën Mbengeen soxna Faama Mbeng daayira maam jaara Touba Thiès Madina Faal soxna Aminata Ngar daayira maam jaara Touba Daaru Rahman soxna Faama Kanji daayira maam jaara Touba Port Jowaalo soxna Mati Njaay daayira maam jaara Touba Mbooben soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Saam soxna Nagoy Silaan daayira maam jaara Touba Route de Boune Dakar soxna Kinengom daayira maam jaara Touba Souraf soxna Maymuna Soxna Lo daayira maam jaara Touba daaru muxti soxna binte caam daayira maam jaara Touba daaru xam Dakar soxna njéeme béy daayira maam jaara Touba looyéen soxna jaal njaay daayira maam jaara Touba mesere Saloum soxna busa jaañ daayira maam jaara Touba njabi faal soxna anta faal daayira maam jaara Touba makka saar soxna mati saar daayira maam jaara Touba Cambérène Dakar soxna aji taala njaay daayira maam jaara Touba ndombolox soxna ndey jeng daayira maam jaara Touba Padola Italie soxna may muna mbay daayira maam jaara Touba daaru tansil sëriñ mudu ñang daayira maam jaara Touba lam Biram Jaan soxna maam a Jóob daayira maam jaara a ci la condox soxna Faati Ñas daayira maam a Touba Daarul Minan trente ba soxna Mariama Njaay daayira maam a Touba Madiana deux soxna maam a Jaw daayira maam a Touba Kuude Mbakke soxna maam Buri Mbaw daayira maam a Touba Daarul Moxti soxna Buso Jóob daayira maam a Touba Umul Xuraa soxna Awa Ndiir daayira maam jaara a Sayi soxna Astu Jeng daayira maam jaara Touba Dakar dem dik Sëriñ Mustapha Faal soxna Ami Njaay maam jaara Touba Njërgël gën Dakar soxna maam jaara Seck daayira maam jaara Touba sañ ci Serigne Saalihu soxna Ndey Jaañ daayira maam jaara Touba Siyeen soxna Nagoy Jóob daayira maam jaara Touba Ngaajam soxna jaara Wadd daayira maam jaara Touba Caareen soxna Afsa Ja daayira maam jaara Touba Kër Ali soxna Gaas Njaay daayira maam jaara Touba Ngay Ngay soxna Amar Gay daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Mbooba Faal daayira maam jaara Touba Mbelgoor Mbeng soxna Batoor Seck daayira maam jaara Touba Gërñël soxna Aminta Mbaay daayira Nuuru Daareeni Touba Moussa Itali soxna May Njaay daayira Xidmatul Cheikhul Khadim Touba Treviso Italie soxna maam jaara ñang daayira maam jaara Touba Mexe Lambaay soxna Adja Awa Sëy daayira maam jaara Touba Njandonga soxna Awa Mbacke Moussa Nawel daayira maam jaara Touba Cukki Ndooy soxna Amina Diop daayira maam jaara Touba Cukki Ka soxna Sooda Jeng daayira maam jaara Touba Tofi Diouf soxna Aram Ndiaye daayira maam jaara Touba Ndogal Jeng soxna Boussa Wade daayira maam jaara Touba Jannatul Firdawsi soxna Fari Diouf daayira maam jaara Touba yoonu Daaru Rahman soxna Faati Diop daayira maam jaara Touba Njandul soxna Jaal Faal mbay saaxo soxna ndey sukkay jaxumpa daayira maam jaara tuba madiana soxna jóob daayira maam jaara tuba paaleen soxna lobe saar daayira mafatihul bisri tuba ndindi soxna tabara silla daayira maam jaara tuba daaru nahim soxna kumbañang daayira maam jaara tuba guy siyaare ngiraneen soxna aji binte ñing daayira maam jaara tuba gaawaan soxna maam anta jóob daayira maam jaara tuba cees mute soxna faali mbay daayira maam jaara tuba njukki faal soxna roqee ndooy daayira maam jaara tuba kër maa jóob ture soxna surang daayira maam jaara tuba aram mbay daayira maam jaara tuuba Kébémer soxna joor dangura daayira maam jaara tuuba yëmbal noor soxna astu njaay daayira maam jaara tuuba musóobe soxna faati ture daayira maam jaara tuuba saam anta njare soxna njóoba jóob daayira maam jaara tuuba saxawga soxna faati njaay daayira maam jaara tuuba gosaas soxna faati mbeng daayira maam jaara tuuba ture faal soxna seynabu faal daayira maam jaara tuuba daaru muxti soxna faati masamba jóob daayira maam jaara tuuba daarul manaan saxawga soxna mati njaay daayira maam jaara tuuba parcelle unité 17 soxna mbeen mbay daayira maam jaara Touba Kër Thion soxna Khady Thiaw daayira maam jaara Touba jokk li bànneex soxna Ami Diouf daayira maam jaara Touba Daaru Salaam soxna Ndey Faatu Mbow kër Alhaaji Isma Mbow daayira maam jaara Touba jokk li njaalige soxna Mati Fall daayira maam jaara Touba Cilla soxna Faatu Silla daayira maam jaara Touba Caaro yi soxna Alimatu Mbakke daayira maam jaara Touba Daarul Moxti soxna Baali Touré daayira maam jaara Touba Yëmbal soxna Salimata Jafaal daayira maam jaara Touba Yëmbal Trois soxna Say Seen daayira maam jaara Touba Yëmbal Cinq soxna Mati Mbeng daayira maam jaara Touba Yëmbal Six siis soxna Ndey Ngom daayira maam jaara Touba Bambilor soxna Faati Njaay daayira maam jaara Touba Kër Ngóoj soxna Ndey Faal daayira maam jaara Touba Baxdaat Mbar soxna Kiné Mbuub daayira maam jaara Touba Tàkkel soxna maam jaara Ngom daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Jëtu Sàmb daayira maam jaara Touba Cooye Njum soxna Nogoy Faal daayira maam jaara Touba Pikin soxna Faati Siise daayira maam jaara Touba Gëjaali Gasaan soxna Soda Juuf daayira maam jaara Touba Caameen soxna Awa Caam daayira maam jaara Touba Ndaam Maxtaar soxna Mbay ak Njaay daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos Sumpuga soxna Jabu Faal daayira Maam Jaara Touba Kuujaan Kër Ñanga soxna Kumba Jóob daayira Maam Jaara Touba Fatick soxna Ummi Kontey daayira Maam Jaara Touba Mbayen Daaru Tanfiil soxna Nogoy Ja daayira Maam Jaara Touba Tangéej soxna Ndey Jeng daayira Maam Jaara Touba Caareen Njaay soxna Faati Géey daayira Maam Jaara Touba Faas Gol Tappe soxna Awa Mbakke daayira Maam Jaara Touba Pulaaye Jàkkay Sëriñ Mbay Njaay soxna Jeeñang daayira Maam Jaara Touba Mbakke Bawol soxna Mbayang Ndong daayira Maam Jaara Touba Baxdaad 2 soxna Nogoy Wadd rahmatullahi alayha daayira maam jaara tuuba daara xara soxna jal gi daayira maam jaara tuuba daarul minan deux soxna maam busa gay daayira maam jaara tuuba mbàkke soxna ndey binte jeng daayira maam jaara tuuba njaween soxna màggat saar daayira maam jaara tuuba xaatar si soxna faatiloo daayira maam jaara tuuba buntumbar soxna busa jaxate daayira maam jaara tuuba saam buqatul mubaarak soxna soodaloo daayira maam jaara tuuba daarul manaan teera soxna nogoy sëy daayira maam jaara tuuba kër ma ñaaw si la soxna soodo ndong daayira maam jaara tuuba daarul xudoo soxna ami njaay Ndiaye daayira maam jaara Touba Kër Ñang soxna Xari Mbay daayira maam jaara Touba Taïba Kaloom soxna Ndey Baabu Guèye daayira maam jaara Touba Ndimbu Jóob soxna Gaas Mbeng daayira maam jaara Touba Kunun soxna Rahimatu Mbacke daayira maam jaara Touba Bustaan soxna Màggat Jóob daayira maam jaara Touba Trente Ba soxna Kinne Jaw daayira maam jaara Touba Jannatu Nahim soxna Sayfaal daayira maam jaara Touba Madiana soxna Aji soxna Sekk daayira maam jaara Touba Kër Rijal Sekk soxna Astu Fay daayira maam jaara Touba Njiite soxna Ndey Ngom daayira maam jaara Touba Bayti Daq Abqaar soxna Xadi Njaay daayira Maam Jaara Tuuba Njaayeen Waali soxna Xoyaan Ndong daayira Masaalikul Jinaan Sëriñ Daawuda Jaañ daayira Maam Jaara Mbàkke Bawol soxna Ayda Faal daayira Maam Jaara Mbàkke Tablo Caabi soxna Aji Anta Ñas daayira Maam Jaara Tuuba Njaay Yàlla Jóob soxna Màggat Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Gatti Géy soxna Anta Géy daayira Maam Jaara Tuuba Daaru Bayda soxna Ngoose Ba daayira Maam Jaara Tuuba Ndeer Wolof soxna Faati Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Minan Faar soxna Soodo Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Umul Xuraa soxna Maam Jaara Faal daayira Maam Jaara jaara tuuba xarañ soxna penda ba daayira maam jaara tuuba mbéjéen soxna mbàkke njaay daayira maam jaara tuuba daaru rahmaan njaay soxna maam faati njaay daayira maam jaara tuuba taysiir soxna nagoy jóob daayira maam jaara tuuba daarul xuddoo soxna sala ndonga daayira maam jaara tuuba ndonga soxna faati saar daayira maam jaara tuuba kër xaas soxna naar mbay daayira maam jaara tuuba mbuur soxna ami mbay daayira maam jaara tuuba dakar soxna ayda puy daayira maam jaara tuuba luga soxna fari sek daayira maam jaara tuuba gaar bu ndaw soxna mareetu seen daayira maam jaara tuuba nasru faal soxna koddu coy daayira maam jaara tuuba guy ndaween soxna may faal daayira maam jaara tuuba pulaayam soxna maam mbar mbàkke daayira maam jaara tuuba njabi faal soxna ngóone faal daayira maam jaara tuuba musóobe seng soxna maada njaay daayira maam jaara tuuba njunaay soxna xadi njaay daayira maam jaara tuuba ngannaado soxna faati kan daayira maam jaara tuuba daarul xudoo soxna maam faati mbàkke daayira maam jaara tuuba yaraax dakar soxna mbenn sek daayira maam jaara tuuba dakar soxna marem sek daayira maam daayira xidmatu maam jaara tuuba yëmbal soxna xadi sek daayira maam jaara tuuba madina càmbeen soxna faati samb daayira maam jaara tuuba guyu sew xaayira soxna marem jeng daayira maam jaara tuuba elke espagne soxna jóob daayira maam jaara tuuba madina soxna jama si daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna fatma jaañ daayira maam jaara tuuba kuujaan njile ween soxna mati jóob daayira maam jaara tuuba madiana seng soxna penda jaañ daayira maam jaara tuuba daarul xudoo soxna maada faal daayira maam jaara tuuba nasru minallahi soxna mbàkke gay daayira maam jaara tuuba Baka soxna Busa Kebe daayira maam jaara Touba Cene ba soxna Ami Fall daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna maam Busa Samb daayira maam jaara Touba Asalem soxna Sooda Géy daayira maam jaara Touba Lansar soxna Njaay daayira maam jaara Touba Ndigal Fall soxna Ñaasa Mbeng daayira maam jaara Touba Mbasin soxna maam Awaña daayira maam jaara Touba Kandala Mbeng soxna Jobbe Mbeng daayira maam jaara Touba Lam Jaan soxna Mbayen Géy daayira maam jaara Touba Kan soxna maam jaara Kan daayira Mafatihul Bisri Touba Daral soxna Ami Diouf daayira maam jaara Touba Daarul Minan Bayal ba soxna Mariama Jaw daayira maam jaara Touba Koul soxna Ngóone Faal daayira maam jaara Touba Tawféex Jaaga soxna Jóob daayira maam jaara Touba Thiès soxna Nobay Mbeng daayira maam jaara Touba Thiès Muusanke soxna Yaasin Géy daayira maam jaara Touba Isin ñaari tëli soxna Faati Mbay daayira maam jaara Touba Njaane soxna Daba Njaay daayira maam jaara Touba Tawféex Aloom ga soxna Aysata Nduur daayira maam jaara Touba Masar soxna maam Busa Jóob daayira maam jaara Touba Asalem soxna Xadi Béy daayira maam jaara Touba Colom soxna Ka daayira maam jaara Touba Bos soxna Jaal Béy daayira maam jaara Touba Kër Sa Kokki Diop soxna maam jaara Mbacke daayira maam jaara Touba Ndoka Sarr soxna Batoor Ndaw daayira maam jaara Touba Mbacke Dimb soxna Ami Ñang daayira maam jaara Touba quartier bëgg Sëriñ Bamba soxna Binta Faal daayira maam jaara Touba Gujaan soxna Gaawa Diop daayira maam jaara Touba Jéemul soxna Anta Ñang daayira maam jaara Touba Xaaji Naar soxna Mareem Ñang daayira maam jaara Touba Daaru Mbos soxna maam Busa Kan daayira maam jaara Faam daayira maam jaara Touba daayira maam jaara tuuba njaañ soxna jóob jaañ daayira maam jaara tuuba njaw njaw soxna jobbe sek daayira maam jaara tuuba daarul xudóo soxna naar njaay daayira maam jaara tuuba ndereb soxna nagoy ngom daayira maam jaara tuuba xawlu soxna nagoy njaay daayira maam jaara tuuba njaañ soxna naar xumma daayira maam jaara tuuba daarul manaan kër sëriñ cheikh awa balla soxna sagar njaay daayira maam jaara tuuba cees madina faal soxna mariama jaañ daayira maam jaara tuuba mbuur soxna aji jàmme daayira maam jaara tuuba condox soxna flat sek daayira maam jaara tuuba Touba Nimsaat Kaolack soxna kan sek daayira maam jaara Touba asalem soxna Sooda Njaay daayira maam jaara Touba kokki soxna Marim Ngom daayira maam jaara Touba Sandiga tablo Serigne Fadilu soxna Xadi Luum daayira maam jaara Touba Njarnde soxna Mbayang Sarr daayira maam jaara Touba Daaru Nger soxna Mati Gueye daayira maam jaara Touba Daarul Manaan kër Serigne Cheikh Awa Balla soxna Aji Sala Njaay daayira maam jaara Touba Roof soxna May Jaxate daayira maam jaara Touba Roof soxna Buso Mbàkke daayira maam jaara Touba Xëy Takku soxna maam Buso Njaay daayira maam jaara jaara tuuba mbuur golf soxna anta gay daayira maam jaara tuuba ta ngéej soxna faatma njaay daayira maam jaara tuuba daaru salaam gede soxna aminata sëy daayira wakaana xaqan ndar soxna faat jéen daayira maam jaara tuuba gede soxna ndikke géey daayira maam jaara tuuba ndaamaatu jàkkaay jàllo soxna xadi mbay daayira maam jaara tuuba quartier bëgg sëriñ bamba soxna jobbe ture daayira maam jaara tuuba guyu sew soxna maam say ñang daayira maam jaara tuuba ndaam càlla soxna say caw daayira maam jaara tuuba saamo sëriñ baara xuréje soxna xadi juuf daayira maam jaara tuuba gede soxna Salma Suur daayira maam jaara Touba Daaru Njaay soxna Jobbe Mbeng daayira maam jaara Touba Touré Gédé soxna Njaxa Touré daayira maam jaara Taan Dakar soxna maam Sayba daayira maam jaara Touba Madiana soxna Maguette Gueye daayira maam jaara Touba Ngéloom soxna Aysata Fay daayira maam jaara Touba Daarul Minan Saalum soxna Awa Bey daayira maam jaara Touba Ngéy Ngéy soxna Ayda Faal daayira maam jaara Touba Asalem soxna Astullo daayira maam jaara Touba Gunjura soxna Faatu Jóob daayira maam jaara Touba Ndaamaatu soxna Fatma Jóob daayira maam jaara Touba Ndofaan soxna soxna astu fay daayira maam jaara tuuba daaru salaam soxna faati ndaw daayira maam jaara tuuba xanda soxna faatma loo daayira maam jaara tuuba madiana seng soxna mbéri bitey daayira maam jaara tuuba ndaamaatu seng soxna jëmbu faal daayira maam jaara tuuba kër mbay faal soxna xari luum daayira maam jaara tuuba ndaamaatu seng soxna penda kebe daayira maam jaara tuuba daaru moxti soxna afsatu géey daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos soxna busa amar daayira maam jaara tuuba saalum soxna maam binta mbàkke daayira maam jaara tuuba daaru nahim 2 Louga soxna Mati Diop daayira maam jaara Touba Louga soxna Biram Baawa daayira maam jaara Touba Saam soxna maam jaara Ñang daayira maam jaara Touba Njarim soxna Xadi Bey daayira maam jaara Touba Ñaloor Géy soxna Fatim Géy daayira maam jaara Touba Dakar soxna Kumba Ba daayira maam jaara Touba Xayra 2 soxna Anta Jeng daayira maam jaara Touba Gaawaan Mbàkke soxna Mbeen Mbàkke daayira maam jaara Touba Moské soxna Daba Mbàkke daayira maam jaara Touba Isin Xorom soxna Sooda Njaay daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos soxna Njóoba Jóob daayira maam jaara Saam boqoxatul mubaarak soxna njéeme Jóob daayira maam jaara Tuuba daarul moxti soxna isa fay daayira maam jaara Tuuba daarul manaan soxna màggat mbeng daayira maam jaara Tuuba kokki soxna sagar tin daayira maam jaara Tuuba daaru salaam soxna faat seen daayira maam jaara Tuuba taybatul karim soxna sol njaay daayira maam jaara Tuuba ndaamaatu soxna ndey béy daayira maam jaara Tuuba foraasu baylaat soxna faat tubb daayira maam jaara Tuuba saam marché bu tas soxna ami sàll daayira maam jaara Tuuba daaru tansil Fall daayira maam jaara Touba daarul minan deux soxna Faati Géey Jóob daayira maam jaara Touba daarul manaan soxna aji maam Busa Mbakke daayira maam jaara Touba Madiana soxna aji Ngóone Jóob daayira maam jaara Touba Kër Moor Abdou Sey soxna maam Busa Mbakke daayira maam jaara Touba Gede soxna Ami Aaj daayira maam jaara Touba Caari Im Jama soxna Ami Saar daayira maam jaara Touba daarul Xudoo soxna maam Faati Mbakke daayira maam jaara Touba Looyeen Baqiya soxna Njaaye Bey daayira Mawaahibul Xuddoos Touba Kamadu soxna Maymuna Dem daayira maam jaara Touba Touba Thiès soxna Mbeen Gay daayira maam jaara Touba Ngiraneen soxna Xadi Jong daayira maam jaara Touba Gosaas soxna Aji Marem Sëy daayira maam jaara Touba Daarul Minan Taayif soxna Kumba Lëy Mbay daayira maam jaara Touba Guy Mbind soxna maam jaara Mbàkke Abdul Karim Barab daayira maam jaara Touba Mbàkke Bawal soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Jaxaay unité 21 soxna Xadi Mbay daayira maam jaara Touba Njalaxaar soxna Yaama Siñaan daayira maam jaara Touba Mesere Jaaga soxna Faati Faal daayira maam jaara Touba Bayax soxna Nogoy Mbay daayira maam jaara Touba Ngéy Ndey Ngéy Njaxala soxna Ndey Mbay daayira Maam Jaara Tuuba Jama Siin soxna Kine Sekk daayira Maam Jaara Tuuba Mbóojeen soxna Ndey Daba Mbóoj daayira Maam Jaara Tuuba Carxanda soxna Waali Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Ngay Ngay soxna Xadi Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Bégal Daksaaw soxna Ndey Jenn daayira Maam Jaara Tuuba Daaru Salaam Ndindi soxna Mati Lay daayira Maam Jaara Tuuba Palmeew soxna Jaal Mbay daayira Maam Jaara Tuuba Gaaraas Daarul Muxti soxna Nagoy Loo daayira Maam Jaara Tuuba Xëy Njaay soxna Maada Ngom daayira Maam Jaara Tuuba Daarul Minan soxna Xadi Jeng daayira Maam Jaara jaara tuuba jannatul mahwa soxna naar faal daayira maam jaara tuuba magasin baay daam soxna astu mbakke daayira maam jaara tuuba togaar soxna seyna bu ndaw daayira maam jaara tuuba nganda kuun soxna aadama faal daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna bintu sey daayira maam jaara tuuba jàkkay njare soxna daba jóob daayira maam jaara tuuba kidra soxna joor njuub daayira maam jaara tuuba saam soxna may sill daayira maam jaara tuuba surra soxna faati siise daayira maam jaara tuuba xaayiram soxna anteloo daayira maam jaara tuuba dakar soxna ayda gay daayira maam jaara Touba asalem 2 soxna Sooda Cissé daayira maam jaara Touba alom nga soxna Mbène Mbacke daayira maam jaara Touba Kébé maire soxna Mare Mbacke daayira maam jaara Touba Daaru Nahim soxna Jeewo Njaay daayira maam jaara Touba Péwu Faal soxna Aada Cissé daayira maam jaara Touba Gede soxna Ndumbe Ñang daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Ami Silla daayira maam jaara Touba Tawfeex Xayga soxna Faati Ñang daayira maam jaara Touba Marché asalem soxna Aji Mbow daayira maam jaara Touba Gede jaara Touba Louga soxna Yaasin Jum daayira maam jaara Touba Daaru Kafaat soxna Seynabu Lo daayira maam jaara Touba Jaaji soxna Buso Caam daayira maam jaara Touba Gede soxna Buso Jaañ daayira maam jaara Touba Jàmm Gën Dakar soxna Ngóone Faal daayira maam jaara Touba Saam soxna Ayda Njaay daayira maam jaara Touba Ndaamaatu Buy Siyaare soxna Xadi Jaañ daayira maam jaara Touba Ndoob Gajaga soxna Faatu Aan daayira maam jaara Touba Bul Guñ soxna Rahmata Jóob daayira maam jaara Touba Koros Maasali soxna Fatma Mbakke daayira maam jaara Touba Paali ma faal soxna maam jaara faal daayira maam jaara tuuba jannatul mahwa soxna aada faal daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos kër wele soxna sooda gay daayira maam jaara tuuba jàkkay sëriñ mbay njaay soxna maam xari jóob daayira maam jaara tuuba njaane jóob soxna ndey jóob daayira maam jaara tuuba kër coon saar soxna maam jaara njaay daayira maam jaara tuuba rahmatu jóob soxna ndaama saar daayira maam jaara tuuba ngànna sàll soxna màggat faal daayira maam jaara tuuba longoor soxna anta mbay daayira maam jaara tuuba kawsara faal soxna faatu mbay daayira maam jaara tuuba njeng Jaw soxna Awa Njaay daayira maam jaara Touba Mesere soxna Xadi Njaay daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos soxna Jaba Juuf daayira maam jaara Touba Ngewar Njaay soxna Ngóone Njaay daayira maam jaara Touba Musoobe soxna Ami Géy daayira maam jaara Touba Saraxaan soxna Awa Caam daayira maam jaara Touba Merina Asta soxna Faati Jaxate daayira maam jaara Touba Caameen soxna maam Busa Jaañ daayira maam jaara Touba Tawfeex Yëmbal Rudda Buun soxna Anta Mbooj daayira maam jaara Touba Maareen soxna Ndey Taal daayira maam jaara Touba Caareen soxna Faatim Ndaw daayira maam jaara Touba daaru njaay soxna anta kumba njaay daayira maam jaara tuuba jéemul amar soxna binta saar daayira maam jaara tuuba kër ma kumba jóob soxna faati jóob daayira maam jaara tuuba daaray fetto soxna faati njaay daayira maam jaara tuuba yoonu daaru muxti soxna ndumbe ñang daayira maam jaara tuuba kër njugaloo soxna faati faal daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna faati njaay daayira maam jaara tuuba maske soxna faati baabu daayira maam jaara tuuba saam soxna awa faal daayira maam jaara tuuba daarul xadiim soxna màggat jóob daayira maam jaara tuuba gine bisaaw soxna ndey Njaay daayira maam jaara Touba kër Daawooda soxna Faati Fay daayira maam jaara Touba xëlga Thiès soxna Sagar Sarr daayira maam jaara Touba Madina Fall Thiès soxna Mbeen Cissé daayira maam jaara Touba Daarul Minan Sëriñ Cerno Kan daayira maam jaara Touba Siin Amar soxna Faati Amar daayira maam jaara Touba Dawax Suran soxna Ami Suran daayira maam jaara Touba Samsam soxna Kumba Jóob daayira maam jaara Touba Daarul Minan Pet soxna Ndey Jóob daayira maam jaara Touba Teenu maam Cheikh soxna Yaasin Baro daayira maam jaara Touba Paaleen soxna Faati Gajaga daayira maam jaara Touba Njaayeen jóg soxna Afsa Kan daayira maam jaara Tuubaa xaayira guyu sew soxna Afsa Sekk daayira maam jaara Tuubaa Gasaan soxna Xujja Saar daayira maam jaara Tuubaa Kër Makumba Kebe soxna Sooda Nduur daayira maam jaara Tuubaa Baxdaad deux soxna Faati Fay daayira maam jaara Tuubaa Ali Kanté Espagne soxna Caam daayira maam jaara Tuubaa Ndaamaatu soxna Faati Mbakke Ja daayira maam jaara Tuubaa guy siyaare soxna Nagoy Jóob daayira maam jaara Tuubaa Mbaaleen soxna Xadika daayira maam jaara Tuubaa Kër Dimba soxna Màggat Njaay daayira maam jaara Tuubaa Kër Demba soxna Màggat Njaay maam jaara tuuba ndaamaatu soxna binte cubbu daayira maam jaara tuuba madison amérique soxna xadi faal daayira maam jaara tuuba mbaakaloo soxna maam jaara loo daayira maam jaara tuuba jokkul mbaaka soxna awa jeng daayira maam jaara tuuba sugeeru mbaaka soxna faatu njaay daayira maam jaara tuuba ndaam sàll njare soxna nagoy sek daayira maam jaara tuuba korniis gu mbind soxna seyna bu ngom daayira maam jaara tuuba daarul manaan mawaahibu soxna sukoy mbóoj daayira maam jaara tuuba daaru njaay soxna maam jaara njaay daayira maam jaara tuuba gubaak soxna roqi kama daayira maam jaara tuuba daaru tansil soxna faatma ñang daayira maam jaara tuuba sam calle soxna faati maram sall daayira maam jaara tuuba kees soxna asta jóob daayira maam jaara tuuba syndicat dakar soxna seynabu saadi daayira maam jaara tuuba pikinteli bu mag soxna njaaye mbeng daayira maam jaara tuuba yëmbal benn baraak soxna bomb pen daayira maam jaara tuuba tali bu bees soxna faat silla daayira maam jaara tuuba bayda soxna seynabu jeng daayira maam jaara tuuba daarul islam soxna mariamu jeng daayira maam jaara tuuba jaara Touba daarul xudóos soxna astu mbay daayira maam jaara Touba ndimbu joor soxna mati jóob daayira maam jaara Touba daarul manaan guyu sow soxna seynabu faam daayira maam jaara Touba sam foras soxna fatim njaay daayira maam jaara Touba teenu maam cheikh soxna maam jaara njaay daayira maam jaara Touba sam pakki dongo ya soxna mbàkke njaay daayira maam jaara Touba mbàkke xewar soxna alsaan mbay daayira maam jaara Touba korniisu gede soxna faati jeng daayira maam jaara Touba janatul mahwa soxna njante géy daayira maam jaara Touba daaru géy soxna nogoy lay daayira maam jaara tuuba mbàkke bawol soxna aji màggat ja daayira maam jaara tuuba taysiir soxna awa nduur daayira maam jaara tuuba cees soxna kooña gi daayira maam jaara tuuba balgéey soxna koddu sàll daayira maam jaara tuuba jolof soxna faamaloo daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna jee caw daayira maam jaara tuuba marché gédé soxna njóoba jaxate daayira maam jaara tuuba looyeen baqiya soxna anta faal daayira maam jaara tuuba madina guna soxna xadi saalihu daayira maam jaara tuuba saxawga soxna faatu sàmb daayira maam jaara tuuba kër ma Lamine Xabaan soxna Xadi Jeng daayira maam jaara Touba quartier maam jaara maam jaara soxna Yande Jaw daayira maam jaara Touba Bëbërël soxna Faati Sall daayira maam jaara Touba Gerle Seck soxna Bintu Kan daayira maam jaara Touba Sali bu bees soxna Mbooja Gajaga daayira maam jaara Touba Madiyana Ka soxna Joor Jeng daayira maam jaara Touba yoonu Daaru Muxti soxna Baali Touré daayira maam jaara Touba Merina Asta soxna Nagoy Ja daayira maam jaara Touba marché Xelkom soxna Farma Jaañ daayira maam jaara Touba Saam soxna Faati Seck daayira maam jaara jaara tuuba aliya soxna faat sey daayira maam jaara tuuba umul xuraa soxna njaañi njaay daayira maam jaara tuuba tawfeex daaray fetto soxna ndey njaay daayira maam jaara tuuba foraasu baay laa soxna ayda géey daayira maam jaara tuuba daarul karim soxna faal daayira maam jaara tuuba daaru salaam soxna busa sek daayira maam jaara tuuba mbàkke ñaari baay faal soxna ndey jaañ daayira maam jaara tuuba ili poor soxna ndey jeng daayira maam jaara tuuba jannatul firdawsi soxna silla daayira maam jaara tuuba asiiru guy siyaare soxna maam ndaw laqu daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna astu jóob daayira maam jaara tuuba daarul manaan njaañ njenne soxna maam jóob daayira maam jaara tuuba ndaamaatu kër baay laat soxna jaara géy daayira maam jaara tuuba kër mbay faal madina mbaaw soxna joor faal daayira maam jaara tuuba ndaam soxna aana faal daayira fatxul wahaab soxna faal kóoj daayira maam jaara tuuba kër sambakan soxna faal daayira maam jaara tuuba belel guloo soxna astu kante daayira maam jaara tuuba mbaam séréer soxna faatu mbay daayira maam jaara tuuba saam jannatu soxna xadi jeng daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna Jeynaba Njaay daayira maam jaara Touba daaru Jóob soxna Ayda Lëy daayira maam jaara Touba Saam Jeng Pekkees soxna Ayda Caam daayira maam jaara Touba Kër Ñang soxna jaara Jóob daayira maam jaara Touba daarul Xuduus soxna Asu Njaay daayira maam jaara Touba Jannatul Mahwa soxna Jóob daayira maam jaara Touba Xayra Dë soxna maam bu Sësil daayira maam jaara Touba Saaw soxna Toole Jéey daayira maam jaara Touba daaru Salaam Cees soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba daaru Salaam Cees soxna Jee Jóob daayira maam jaara Touba daarul Karim soxna Binti Njaay daayira maam jaara Touba Gosaas soxna Biti Njaay daayira maam jaara Touba Taysiir soxna Awa Kan daayira maam jaara Touba Ñaaxeen soxna Awa Juuf daayira maam jaara Touba Bayti soxna Nogoy Mbàkke daayira maam jaara Touba Mbër Ñenne soxna Màggat Géy daayira maam jaara Touba marché Ocass soxna Ngóone Njaay daayira maam jaara Touba Sura soxna Ndey Faal daayira maam jaara Touba Njaajaay soxna Faat Sekk daayira maam jaara Touba Kër Yirim Faal soxna Nogoy Faal daayira maam jaara Touba Teenu maam Cheikh soxna Faatu Faal daayira maam jaara Touba Pakistan barabu Serigne Afe soxna Adama Diop daayira maam jaara Touba Lansar soxna Faali Ndiaye daayira maam jaara Touba Ndamatu soxna Jabba Diack daayira maam jaara Touba Darou Wahab soxna Mbayang Diop daayira maam jaara Touba Ndand Daara Palmeew soxna Mbenn Lo daayira maam jaara Touba Baye Falga soxna Ndey Diagne daayira maam jaara Touba Aliya Doli soxna Awa Gueye daayira maam jaara Touba Daaru Nahim De soxna Fatil daayira maam jaara Touba Njaareem soxna maam Busolo daayira maam jaara Touba Xayra Dial Cissé daayira maam jaara Touba Kébémer soxna Boussolo daayira maam jaara Touba Guyu Sew soxna Mbène Guèye daayira maam jaara Touba Jaxaay 1 soxna Kumba Sarr daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Ami Ngom daayira maam jaara Touba Baxdaad 2 soxna Soda Cissé daayira maam jaara Touba Jàmm Gën Ndar soxna Ndate Wadd daayira maam jaara Touba Njaane soxna Say Njaay daayira maam jaara Touba Digiñ Séréer soxna Xadi Nduur daayira maam jaara Touba Mbu soxna Sek daayira maam jaara Touba Ñinci soxna Ndey Jeng Diouf daayira maam jaara Touba Taïba Kaay soxna Ndey Fall daayira maam jaara Touba Ndiliki soxna Sayka daayira maam jaara Touba Dimbu Diop soxna Faati Diop daayira maam jaara Touba Ilipor soxna Ami Gueye daayira maam jaara Touba Madiana soxna Ami Ndiaye daayira maam jaara Touba Darou Salam Jenne soxna Faatu Gadd Ka daayira maam jaara Touba Dakar soxna Ndiaye Sarr daayira maam jaara Touba ñoom rek soxna Xadi Gueye daayira maam jaara Touba Darul Minin Isin Karo soxna Ndey Tanjang daayira maam jaara Touba Gede soxna Xadi Ndiaye daayira maam jaara Touba Darou Moti soxna maam jaara Jeng daayira maam jaara Touba Asiru soxna Anta Ngom daayira daayira maam jaara tuuba ndindi soxna ndey géy daayira maam jaara tuuba asalem soxna anta jóob daayira maam jaara tuuba mars maam asawaalo soxna daba njaay daayira maam jaara tuuba xayra de soxna busu jóob daayira maam jaara tuuba sangal kam soxna marem ba daayira maam jaara tuuba daarul manaan saxaw ga soxna atu sall daayira maam jaara tuuba ginnaaw raay setib si soxna fatma jaañ daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna ja sëriñ taala samb daayira maam jaara tuuba mbakke xewar soxna aram juuf daayira maam jaara tuuba ndooyeen soxna afsa jeng daayira maam jaara tuuba xajaratu soxna maam jaara géey daayira maam jaara tuuba param soxna mbenn géey daayira maam jaara tuuba xisbu tarxiya soxna faati géey daayira maam jaara tuuba ndaam soxna màggat géey daayira maam jaara tuuba faas mbaaw soxna siini mbay daayira maam jaara tuuba waxal jàmm soxna faatu ja daayira maam jaara tuuba daarul xudoos bassin sëriñ murtada soxna faati sey daayira maam jaara tuuba parcelle soxna faatu dem daayira maam jaara tuuba jaaxal soxna marem jeng daayira maam jaara tuuba mbal soxna mbenn géey daayira maam jaara tuuba siinu feex soxna mbayang géey daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Musli Guèye daayira Maam Jaara Touba Sandika Dakar soxna Ndey Njaay daayira Maam Jaara Touba Jol Njaay soxna Ñang daayira Maam Jaara Touba Ate Siise soxna Faat Njaay daayira Maam Jaara Touba Njariñ soxna Isa Caam daayira Maam Jaara Touba Saam soxna Jóob Jeng daayira Maam Jaara Touba Gede soxna Musli Jóob daayira Maam Jaara Touba Sura soxna Faati Guèye daayira Maam Jaara Touba Asalem soxna Faat Sow daayira Maam Jaara Touba Kuréeg Joor soxna Mare Mbaw daayira Maam Jaara Touba Kër Sëriñ Rijaal Sekk soxna Buso Jóob daayira Maam Jaara Touba daarul minan saalum soxna xariloo daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna busa njaay daayira maam jaara tuuba gosaas soxna ndancu njaay daayira maam jaara tuuba saam soxna mamba daayira maam jaara tuuba jokko soxna seynabu njaay daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna ndey faal daayira maam jaara tuuba daarul manaan ginaaw raay soxna caara saar daayira maam jaara tuuba jokko soxna seynabu njaay daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna ndey faal daayira maam jaara tuuba daarul manaan ginaaw raay soxna caara saar daayira maam jaara tuuba daarul xudduus soxna maam awa jaxate daayira maam jaara tuba aliya soxna nogoy ba daayira maam jaara tuba daarul minan soxna jaara jeng silli daayira maam jaara tuba kër ma xaali kan soxna safiyatu gàkku daayira maam jaara tuba gaat soxna maymuna caw daayira maam jaara tuba daaru salaam géejaway soxna penda jóob daayira maam jaara tuba cekkeen mérina baxaar soxna nogoy njaay daayira maam jaara tuba mexelambaay soxna jaara seen daayira maam jaara tuba gosaas soxna awa jaw daayira maam jaara tuba pikin ñetti mbaar soxna aja astu faal daayira maam jaara tuba asalem soxna ndey mbàkke Mbàkke daayira Misaaxul Xuyóor Tuuba Reefan sëriñ maam Mortin Fasaid daayira maam Jaara Tuuba Kër Masaar soxna Atta Fall daayira maam Jaara Tuuba Madina Fall Thiès soxna maam Busa Jóob daayira maam Jaara Tuuba Bambi Ginaaw Raay soxna nday Mbay daayira maam Jaara Tuuba kër sëriñ Jabel Sall soxna Ndey Sall daayira maam Jaara Tuuba Ndaamaatu soxna Ndey Jóob Mbuub daayira maam Jaara Tuuba Daarul Xuddoos deuxième garage soxna maam Busaloo daayira maam Jaara Tuuba Mbàkke Baari Mbàkke Bawal soxna Faat Mbàkke daayira maam Jaara Tuuba Daarul Manaan teli bu bees soxna maam Asa Mbàkke daayira maam jaara tuuba njigal soxna mareema ture daayira maam jaara tuuba layeen soxna xari lay daayira maam jaara tuuba boya soxna xadi silla daayira maam jaara tuuba bayti mbasin soxna maam jóob daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna aftu jóob daayira maam jaara tuuba jaxaaw siin soxna faatu jàllo jóob daayira maam jaara tuuba njuufeen soxna nogoy fay daayira maam jaara tuuba guy dara po cees soxna kinne nduur daayira maam jaara tuuba ginnaaw raay dakar soxna afsa jóob daayira maam jaara tuuba daaru géy soxna joor jeng daayira maam daayira maam jaara tuuba jannatul mahwa soxna amisi la daayira maam jaara tuuba itaali sëriñ xaadim jaw daayira maam jaara tuuba umul xura sëriñ mbàkke jonn daayira maam jaara tuuba dugub soxna saajo seen daayira maam jaara tuuba ca tuuba cànga soxna nagoy jëng daayira maam jaara tuuba daarul minan guy ndaween soxna aji màggat kan daayira maam jaara tuuba tawfeex soxna maada jóob daayira maam jaara tuuba alom ga soxna ami juuf daayira maam jaara tuuba daaru rahmaan soxna aminata suran daayira maam jaara tuuba ndaam soxna njole jóob daayira maam jaara tuuba musoobe soxna Xadi Njaay daayira maam jaara Tuuba guy mbind soxna Ndey Ñang daayira maam jaara Tuuba ñaaxar soxna Ami Sow daayira maam jaara Tuuba caaween soxna Juuf daayira maam jaara Tuuba Musoobe soxna Sooda Faal daayira maam jaara Tuuba Saam Masaalikul Jinaan soxna Awa Géey Jóob daayira maam jaara Tuuba Foraasu Baylaat soxna Abi Mbay daayira maam jaara Tuuba Daarul Xuddoos soxna Nogoy Faal daayira maam jaara Tuuba Paalin Mbàkke soxna Faatu Sekk daayira maam jaara Tuuba Ndaamaatu soxna Faatu Mbàkke daayira maam jaara Tuuba Kër Mbay Faal soxna Njaañ Sàll daayira maam jaara soxna bintu jaw daayira maam jaara tuuba daarul minan marché maam bint soxna aadama jaañ daayira maam jaara tuuba daaru xuddoos soxna jaxeer njaay daayira maam jaara tuuba kalom loo soxna ami saar daayira maam jaara tuuba tali bu bees soxna asa mbàkke daayira maam jaara tuuba madina faal soxna maam awa faal daayira maam jaara tuuba fas boy soxna aminata sek daayira maam jaara tuuba kebe jëlin soxna ndey jàllo daayira maam jaara tuuba njaxate njaasaan soxna asu mbuub daayira maam jaara tuuba njaxeer soxna ayda jóob daayira maam jaara tuuba sëriñ daam jeng daayira maam jaara Touba Thiaroye Dakar soxna Astu Fall daayira maam jaara Touba Ngandé soxna Ndak Silla daayira maam jaara Touba Ndeg Babu soxna Xadi Cissé daayira maam jaara Touba Parcelles unité 18 soxna Daba Diop daayira maam jaara Touba Fall Njum Gen soxna Amsatu Der daayira maam jaara Touba Diop soxna Dial Diop daayira maam jaara Touba Ndagu soxna Dial Diop daayira maam jaara Touba Ndiine Amar soxna maam jaara Amar daayira maam jaara Touba Gudumbu soxna maam jaara Seck daayira maam jaara Touba Maqi soxna Kakku Jaali daayira maam jaara Touba Toubé Ndaw soxna maam jaara Pen daayira maam jaara Touba Touba Caaroy Asir soxna Aftu Kanté daayira Maam Jaara Touba Dakar soxna Faati Siise daayira Maam Jaara Touba Géejawaay marché Xelkoom soxna Ndey Faatu Saaxo daayira Maam Jaara Touba marché Saam Géejawaay soxna Xadi Jaañ daayira Maam Jaara Touba Kosaanaar soxna Ndey Lobe Ndaw daayira Maam Jaara Touba Daaru Muxti soxna Maam Awa Sow daayira Maam Jaara Touba Gandigal Sëriñ Mouhamadou Mar daayira Maam Jaara Touba Parcelles Unité 1 soxna Xadi Ñang daayira Maam Jaara Touba Kayaar soxna Wara Siis daayira Maam Ngom daayira maam jaara Touba Louga soxna Aram Diouf daayira maam jaara Touba Pikine Sandika Baye Wali Ndiaye daayira maam jaara Touba Ndujur soxna Ñang Diouf daayira maam jaara Touba Usnul Maataan soxna Faati Jaaxo daayira maam jaara Touba Xayra de soxna Aji Say Boy daayira maam jaara Touba Gébbal Jaw soxna Awa Cissé daayira maam jaara Touba Daaru Muxti soxna Xadi Jóob daayira maam jaara Touba Thiès soxna Ndaak Sall daayira maam jaara Touba Thiès soxna Roqaya Mbeng daayira maam jaara Touba Louga soxna Yaasin Xuma daayira maam jaara Touba Thiès soxna Jabba Fall daayira maam jaara tuuba daaru minan soxna xadi mbeng daayira maam jaara tuuba njenne soxna nagoy ture daayira maam jaara tuuba kaneen njob soxna màggu njaay daayira maam jaara tuuba kambreen dakar soxna ndaw mbeng daayira maam jaara tuuba umul xuraar soxna faatu njaay daayira maam jaara tuuba xelli soxna aadama jóob daayira maam jaara tuuba mbajaan soxna busa njaay daayira maam jaara tuuba mbóojeen soxna faati jóob daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna màggat faal daayira maam jaara tuuba njaakaan gay soxna faata ture daayira maam jaara tuuba nuwaadibu soxna maam jàllo daayira maam jaara Touba daaray fetto soxna maam Faati Mbàkke daayira maam jaara Touba Somone soxna Yaasin Fay daayira maam jaara Touba Sanci Sëriñ Saaliwu soxna Yaama Caam daayira maam jaara Touba Daaru Faal soxna Sukay Wadd daayira maam jaara Touba Parcelles Unité 2 soxna Mati Ja daayira maam jaara Touba Ndaat Faal soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Mbirin soxna Ndaama Fay daayira maam jaara Touba Ndemeen soxna Aysatu Njaay daayira maam jaara daayira maam jaara tuba daaru njaay soxna sooda caam daayira maam jaara tuba parcelle kaas ba soxna ndey jaañ daayira maam jaara tuba géejaway soxna moomi siise daayira maam jaara tuba njum soxna jaal baabu daayira maam jaara tuba wura soogi soxna faatma jóob daayira maam jaara tuba njuufeen soxna faatu géy daayira maam jaara tuba daaru njaay soxna ngóone njaay daayira maam jaara tuba ci la wunte soxna ami silla daayira maam jaara tuba dimbu faal soxna mati lay daayira maam jaara tuba parcelle unité 9 soxna sooda baabu daayira fatul xafaar dakar sëriñ basiru njaay daayira saadatu Sibyane Touba Guédé soxna Mariam Sow daayira Subul Salaam Touba Sampani Detto Italie Serigne Aliou Lo daayira Maam Jaara borom sareet yi ci Touba Serigne Sidina Ousmane Sall daayira Maam Jaara Touba Jokuli Tabbi soxna Mbayang Fall daayira Maam Jaara Touba Xam Ngisam soxna Ami Guèye daayira Maam Jaara Touba Gunjooro soxna Fatou Dieng daayira Maam Jaara Touba Géejawaay Amoo Tefes soxna Kumba Ba daayira Maam Jaara Touba Pikine Ginaaw Raay soxna Ndey Caam daayira Maam Jaara Touba Pire soxna Mbenn Daaru Mbub daayira Maam Jaara Touba Gengi Néew soxna Kumba Boy daayira Maam Jaara Touba Fass Barigo soxna Xadi Bey daayira maam jaara Touba Medina Dakar soxna Nagoy Diouf daayira maam jaara Touba Mbour soxna Nagoy Njaay daayira maam jaara Touba Medina Sill soxna Aminata Sill daayira maam jaara Touba Taba Ngoy Kawlax soxna Daba Fall daayira maam jaara Touba Waxinaan Géejawaay soxna Faati Jaw daayira maam jaara Touba Waxinaan Géejawaay soxna Kine Siise daayira maam jaara Touba Ribo soxna Faatu Lo daayira maam jaara Touba Njaxat soxna Faatu Ndoom daayira maam jaara Touba Afe Caaneen soxna Ndey Sam daayira maam jaara Touba Loora soxna Batoor Géy daayira maam jaara Touba Ñabaas soxna Kumba Njaay daayira maam jaara kër sëriñ ismaila diouf soxna faati saar daayira maam jaara tuba palmeew soxna ami jaw daayira maam jaara tuba caaroy géej soxna jaal géey daayira maam jaara tuba yëmbal soxna booja jóob daayira maam jaara tuba caaroy asiir sëriñ maalik njaay daayira maam jaara tuba faas mbaaw soxna maam jaara silla daayira maam jaara tuba grand yoff dakar soxna nagoy jóob daayira saxadatul muridina tuba ndar soxna faatu faal daayira maam jaara tuba bañ sang gambi soxna faatu caam daayira maam jaara tuba kolobaan dakar soxna astu ture daayira maam jaara tuba saara kawlax soxna soxna farmata njaay daayira maam jaara tuba daaru mbàpp soxna maam jaara jaw daayira maam jaara tuba la maram bajaan soxna afta mbay daayira maam jaara tuba kër musa soxna faati saar daayira maam jaara daaray poroxaan soxna roqiya sek daayira maam jaara kawlax soxna ndey saar daayira maam jaara tuba daaru maxtaar soxna anca darame daayira maam jaara tuba alukki soxna maam faama njaay daayira maam jaara tuba kër maba soxna sëriñ alhaaji ndaw daayira maam jaara tuba poroxaan soxna aji faal daayira maam jaara tuba daaru bakacaar soxna maam jaara loo Lo daayira maam jaara Poroxaan soxna Ndey Touré daayira maam jaara Touba Kër Madi Yaasin soxna Yaasin Cissé daayira maam jaara Touba Ndofaan soxna Yaasin Sarr daayira maam jaara Touba Aynumaan Mbuur soxna maam jaara Diouf daayira maam jaara Touba Kaasawil Kawlax soxna Dabaloo daayira Sindiidi Dakar soxna Baasin Gasama daayira maam jaara Touba Kër Kab soxna Fatine Dramé daayira maam jaara Touba Pikine Tali bu bees soxna Ndey Faati Bitey daayira maam jaara Touba Ciowoor soxna Kumba Sek daayira maam jaara Touba Lewna Jali Njaay Abdoulaye Njaay daayira maam jaara Touba Gabban soxna Bousso Diop daayira maam jaara Touba Longoor soxna Khady Diop daayira maam jaara Touba Sambara soxna Yaama Seck daayira maam jaara Touba Fall soxna Mariama Dia daayira maam jaara Touba Ngar Gueye soxna Fat Silla daayira maam jaara Touba Kër Bakka soxna Ndey Dramé daayira maam jaara Touba Daarul Minan Kaolack soxna Basin Njëgën daayira maam jaara Touba Géngi Néew Mbaaleen soxna Aram Sall daayira maam jaara Touba Géejaway soxna Astu Gueye daayira maam jaara Touba Kër Mbay Fall soxna Ummi Fall daayira maam jaara Touba Maka Mbay soxna ngeeloo soxna faama géey daayira maam jaara tuuba caareen maxtaar saar soxna faat jàmme daayira maam jaara tuuba daaru salaam kawlax soxna maam jaara ngom daayira maam jaara tuuba marché okas kawlax soxna yaatma fay daayira maam jaara tuuba saam kawlax soxna kati njaay daayira maam jaara tuuba kër maalum jaw kawlax soxna faat jeng daayira maam jaara tuuba gammo soxna xadi njaay daayira maam jaara tuuba kongare soxna awa njaay daayira maam jaara tuuba liiñ soxna xadi saar daayira maam jaara tuuba soppil soxna maam jaara seen daayira maam jaara tuuba kër soxna askuf njaay daayira maam jaara tuuba yati xay soxna yaama congaan daayira maam jaara tuuba seekilo soxna nafi njaay daayira maam jaara tuuba kër bakka soxna jaañ daayira maam jaara tuuba mbisaaw soxna mati siise daayira maam jaara tuuba bonja soxna teneng yadd daayira maam jaara tuuba ngëtu malik soxna xarma wilaan daayira maam jaara tuuba ndaam soxna jee siise daayira maam jaara tuuba bagana soxna xadi siñaan daayira soxna wilaan daayira maam jaara tuuba ngayen demba wilaan daayira maam jaara tuuba ardo soxna faat jaañ daayira maam jaara tuuba kër lay ramata soxna Aysatu Siñaan daayira maam jaara Touba Ndoy li soxna Caam daayira maam jaara Touba Suntu soxna maam jaara Wilaan daayira maam jaara Touba Taaleen soxna Faatu Njaay daayira maam jaara Touba Daggay Ndiine soxna Astu Jaase daayira maam jaara Touba Daaru Pakala soxna Batoor Sek daayira maam jaara Touba Kafrin soxna Ayda Bey daayira maam jaara Touba Kafrin soxna Daba Joob daayira maam jaara Touba Afe Murit soxna Ndey Wilaan daayira maam jaara Touba Buude soxna Faatu Joob daayira maam jaara Touba Kafrin soxna Anta Sow daayira maam jaara Touba Marché daayira maam jaara tuuba kawlax kër sëriñ basiru soxna saynabu sugu daayira maam jaara tuuba kawlax soxna faama luum daayira maam jaara tuuba coofak soxna xadi jaw daayira maam jaara tuuba njum gen soxna ummi jaw daayira maam jaara tuuba mbaa bummi paalin soxna kumba wadd daayira maam jaara tuuba espagne soxna màggat jóob daayira maam jaara tuuba ndooran kawlax soxna faan njaay daayira maam jaara tuuba kuure soxna sala géey daayira maam jaara tuuba lumbel kelli soxna mbayan kante daayira maam jaara tuuba yof dakar soxna ay dakar maam jaara tuuba pasuwaar kawlax soxna kinne jóob daayira maam jaara tuuba aluki soxna maam faama njaay daayira maam jaara tuuba kawlax soxna faatu caam daayira maam jaara tuuba kawlax soxna seli seen daayira maam jaara tuuba kawlax maam kumba juuf daayira maam jaara tuuba ndoorang soxna ndey faatu mbuub maam jaara tuuba dakar soxna maci mbóoj daayira maam jaara tuuba ndengaleer soxna jama faal daayira maam jaara tuuba kawlax soxna moomi bitey daayira maam jaara tuuba ñooro soxna xadi géy daayira maam jaara tuuba daarul manaan saalum soxna mariama ñaan daayira maam jaara Touba Kayar soxna maam Khady Mbacké daayira maam jaara Touba Kaffrine soxna maam jaara Thion daayira maam jaara Touba Koutal soxna Jaxu Joob daayira maam jaara Touba Kaolack soxna Faama Jaañ daayira maam jaara Touba Cité Rousset Thiaroye soxna Rama Njaay daayira maam jaara Touba Bustaan Kaolack soxna Dabaja daayira maam jaara Touba Gengi Néew soxna Mbeen Mbacké daayira maam jaara Touba Njaayeen soxna Soda Seen daayira maam jaara Touba Kër Makodde Baar soxna maam jaara Ja daayira maam jaara Touba Kaneen soxna Faati Gueye daayira maam jaara Touba Ndiireen soxna Astu Gueye daayira maam jaara tuuba daaru nahim ndelle soxna talla daayira maam jaara tuuba teenu fuude soxna maam jaara juuf daayira maam jaara tuuba ngarja soxna maane kebe daayira maam jaara tuuba yaari guy soxna ndey njaay daayira maam jaara tuuba kër mbay lay soxna mareem ñang daayira maam jaara tuuba daaru faal soxna nogoy jeng daayira maam jaara tuuba jaaga soxna roqee jaw daayira maam jaara tuuba daaru kër maam xaasim soxna maam bu su juuf daayira maam jaara tuuba kër sajjiko soxna faati kebe daayira maam jaara tuuba ta ayaay ja soxna kumba fay daayira maam jaara tuuba mux mux soxna maam jaara sëy daayira maam jaara tuuba dakar soxna sayba daayira maam jaara tuuba quartier cheikh wadd géejawaay soxna mbenn jeng daayira maam jaara tuuba kawsara dakar soxna ndey marem jóob daayira maam jaara tuuba grand médine dakar soxna sagar njaay daayira nooru daareeni crédit mutuel sëriñ mamad alla daayira maam jaara tuuba pikin soxna maam buso jaag daayira maam jaara tuuba ngaan sayar kawlax soxna maam seen géy daayira maam jaara tuuba cikki soxna binte ñang daayira maam jaara tuuba ñaari tëli dakar soxna adama ba daayira maam jaara tuuba daaru ridwaan kawlax soxna siti kebe daayira maam maam jaara tuuba kër gimaan soxna busa kan daayira maam jaara tuuba coofan soxna faatu njaay daayira maam jaara tuuba njaañ lambaay soxna jaxeer fay daayira maam jaara tuuba mbambay soxna xadi njaay daayira maam jaara tuuba maabo soxna sënu njabaay daayira maam jaara tuuba ndaxaar silla soxna faat silla daayira maam jaara tuuba ndengaleer soxna awa njaay daayira maam jaara tuuba ndengaleer soxna ndey ami kontey daayira maam jaara tuuba madina salaam soxna sëtu xujjaloom daayira maam jaara tuuba tabangoy kawlax soxna nafi jóob daayira maam jaara tuuba ndengaleer tawfeex soxna maam busa njaay daayira maam jaara daayira maam jaara Touba Kër Ma Jabel soxna Njaxat Mbàkke daayira maam jaara Mbàkke Xewar soxna Ummi Mbàkke daayira maam jaara Touba Okaas Kawlax soxna Busa Silla daayira maam jaara Touba Guy Murit soxna Mbaaco Ja daayira maam jaara Touba soxna Njóoba Siise daayira maam jaara Touba Daaru Mbos soxna May Faal daayira maam jaara Touba Luga soxna Binta Silla daayira maam jaara Touba Poroxaan soxna maam jaara Mbàkke daayira maam jaara Touba Daaru Xuddos Saalum soxna Ami Siise daayira maam jaara Touba Géejawaay Sëriñ Mustafa Buso Touba Naame Amar soxna Daba Diop daayira maam jaara Touba Sarim Mbay Pentum soxna Roxya Ndoom daayira maam jaara Touba Kër Faafa soxna Adama Silla daayira maam jaara Touba Jannatul Firdawsi soxna Fari Diop daayira maam jaara Touba Parcelles Unité 8 soxna Njéeme Njaay daayira maam jaara Touba Refan Mbos soxna Ndey Kura Fay daayira maam jaara Touba Ngeen Jeng soxna Mbeen Jeng daayira maam jaara Touba Géejawaay Dakar soxna Soda Njaay daayira maam jaara Touba Ndamlo soxna Jayna Dramé daayira maam jaara tuba daarul xudoos soxna mbenn xuma daayira maam jaara tuba kër sàmbaluum soxna jama sëy daayira maam jaara tuba fere feñe soxna awa jóob daayira maam jaara tuba kaasawil kawlax soxna astu mbàkke njaay daayira maam jaara tuba mbàkke soxna amina mbàkke daayira maam jaara tuba sam jëful xulóob soxna ndey njaay daayira maam jaara tuba mbayaar soxna jetu puy daayira maam jaara tuba mbayaar soxna jetu ture daayira maam jaara tuba daarul minan soxna njaxat surang daayira maam jaara tuba iko taaf 2 dakar soxna aminata bintu mbeng daayira maam jaara tuba tindoodi soxna maam jaara xulle daayira maam jaara tuba gañwaay Côte d'Ivoire soxna awa mbakke daayira maam jaara tuba asturiya Espagne soxna nogoy faal daayira maam jaara tuba saam soxna asuba daayira maam jaara tuba yëmbal dakar soxna awa gay daayira maam jaara tuba daaru tansil soxna afsa silla daayira maam jaara tuba njeyeen wajja soxna awa sek daayira maam jaara tuba mbakke soxna maam faati sam daayira maam jaara tuba mbuur soxna xujja silla daayira maam jaara tuba sam yabal soxna may maam jaara tuuba saam yabal soxna muslim mbay daayira maam jaara tuuba sannosi soxna asta diouf daayira maam jaara njabootug sëriñ abdoulahi kan soxna moomi mbake muusa daayira maam jaara jurbel soxna maam fatiba daayira maam jaara tuuba daarul manaan quartier madroom soxna faati mbay daayira maam jaara tuuba jogo soxna seyna bu jaañ daayira maam jaara tuuba mbal guy siyaare soxna njéeme beey daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna faatu jaañ daayira maam jaara tuuba kuure xandan soxna màggat jóob daayira Njaay daayira maam jaara Touba yëmbal Dakar soxna Maguette Diagne daayira maam jaara Touba Géejawaay Waxinaan soxna maam jaara Sall daayira maam jaara Touba Tayba Dakar soxna Sill daayira maam jaara Touba Darul Xudoos soxna maam Awa Seen daayira maam jaara Touba Paleen Dédd soxna Faatu Jóob daayira maam jaara Touba Ndokka Sidi soxna Xadi Jum daayira maam jaara Touba Thiès kër Sëriñ Abdoulaye Yaqin soxna Marème Gueye daayira maam jaara Touba Mbajaaneen soxna Awa Ñang daayira maam jaara Touba Ndóob Gajaga soxna Awa Gajaga daayira daayira maam jaara tuba xaayira 2 soxna marem sek daayira maam jaara tuba mbàkke dimb soxna faaf daam ka daayira maam jaara tuba xaayira guyu sew soxna maam jaara loo daayira maam jaara tuba mbul soxna ndeela jaañ daayira maam jaara tuba daarul minan marché maam binte soxna mbeen jeng daayira maam jaara tuba baxdaad 2 soxna mbay takka daayira maam jaara tuba kellal jóob soxna ñaan jóob daayira maam jaara tuba baxiya soxna afsa njaay daayira maam jaara tuba kër ñang soxna mayja daayira maam jaara tuba caaween déem ga soxna maam jaara sam daayira daayira maam jaara touba sips dakar soxna ayda seen daayira maam jaara touba aliya 2 soxna ñang daayira maam jaara touba saamuk sëriñ baara xuréja soxna buri sey daayira maam jaara touba moské soxna maam mati mbàkke bintu sëriñ fadilu daayira maam jaara touba xuru mbàkke soxna awa seen daayira maam jaara touba mayel landang soxna baali mbàkke daayira maam jaara touba mariana deuxième garage soxna naata faal daayira maam jaara touba guy mbind soxna faal mbàkke daayira maam jaara touba guy mbind soxna maam jaara ja daayira maam jaara touba daaru salaam jaara Touba Ndindi Tawfeex soxna Ñole Lo daayira maam jaara Touba Daaru Muxti soxna Anta Sarr daayira maam jaara Touba Leyeen soxna Faati Njaay daayira maam jaara Touba Madiyana soxna Ndey Jeng daayira maam jaara Touba Mbaaleen soxna Aminata Sarr daayira maam jaara Touba Janatu Nahim Alom ga soxna Joor Mbay daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Walci Konte daayira maam jaara Touba Afeley soxna Aja Aram Lo daayira maam jaara Touba Kër Mbaalo Njaay soxna Faati Njaay daayira maam jaara Touba Koki Njaageen soxna Kumba Jeng daayira maam jaara Touba Mirina Jóob soxna Jaara Gay daayira maam jaara Tuuba daarul manaan soxna Jeynaba Jeng daayira maam jaara Tuuba tali bu bees soxna Kine Sàll daayira maam jaara Tuuba ngal xuma soxna Seel Jóob daayira maam jaara Tuuba tawfiq daarul manaan soxna Xadi Njaay daayira maam jaara Tuuba daaru tansil soxna maam Awa Faal daayira maam jaara Tuuba teenu maam Cheikh soxna Ndey Ja daayira maam jaara Tuuba daarul xudus soxna Bintulaay Juuf daayira maam jaara Tuuba njee mbalax soxna Mbeen Juuf daayira maam jaara Tuuba lu doy soxna Daba Samb daayira maam jaara Tuuba daaru salaam Cees soxna Say Aan daayira maam jaara Tuuba Baye Fall ga soxna Ami Bey daayira Maam Jaara Touba Saam soxna Faatu Amar daayira Maam Jaara Touba Daaru Salaam soxna Awa Njaay daayira Maam Jaara Touba Daaru Tansil soxna Maane Touré daayira Maam Jaara Touba Daaru Tansil soxna Mati Touré daayira Maam Jaara Touba Madiana soxna Ajara Njaay daayira Maam Jaara Touba Daarul Minan soxna Mbenn Lo daayira Maam Jaara Touba Saxaw ga soxna Koddu Njaay daayira Maam Jaara Touba Daarul Manaan soxna Mbaacoka daayira Maam Jaara Touba Ngaabu soxna Màggat Juuf daayira Maam Jaara Touba Dakar Mbayaar soxna Busa Jóob daayira Maam Jaara jaara Touba Guy Ndaween soxna Rama Seck daayira maam jaara Touba Daaru Salaam 2 soxna Khady Diop daayira maam jaara Touba Carrefour soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Jannatul Mahwa soxna Matiley daayira maam jaara Touba Jannatul Mahwa soxna Joor Sall daayira maam jaara Touba Alom ga soxna Anta Cissé daayira maam jaara Touba Daaru Nahim 2 soxna Joor Seen daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos soxna Loota Njaay daayira maam jaara Touba Foras Baylaat soxna Maam Busa Jeng daayira maam jaara Touba Université Bambey soxna maam jaara Caam daayira maam jaara Touba Kër Mor Njaay soxna Maguette Njaay maam jaara tuba daaru salaam njumaan soxna busa ngom daayira maam jaara tuba daaru samb soxna bintu saar daayira maam jaara tuba ndaam faal soxna ndumbeka daayira maam jaara tuba géejaway soxna màggan mbakke daayira maam jaara tuba sumpuga sumpug baay jaañ soxna faatu juuf daayira maam jaara tuba daaru salaam sow soxna xadi li daayira maam jaara tuba daarul minen butigu faal soxna aana taal daayira maam jaara tuba looyeen soxna marem wadd daayira maam jaara tuba yoonu daaru rahman sëriñ cheikh faal daayira maam jaara tuba xayra de soxna ayda jeng daayira maam jaara tuba daarul manaan njene lagan soxna sadda batandine daayira maam jaara tuba nga xam soxna xadi jeng daayira maam jaara tuba kër ñang soxna faati xarija daayira maam jaara tuba may jóob soxna faatu mbooj daayira maam jaara tuba gaar bu mag soxna may mbake daayira maam jaara tuba jannatul mahwa soxna nogoy ñang daayira maam jaara tuba ndindi afe soxna amisey daayira maam jaara tuba saam marché bu bees soxna xujja jaw daayira maam jaara tuba pompier umul xura soxna fari faal daayira maam jaara tuba mbusoobe soxna ami sow soxna ummi njaay soxna nogoy juuf Diouf daayira maam jaara Touba ndindi tawféex soxna Ndey Fay daayira maam jaara Touba Pulaay yoonu ndindi soxna Batoor Ñang daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos soxna Màggat Jaw daayira maam jaara Touba Madiana Kaar soxna Gassaar daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos soxna maam Busa Ture daayira maam jaara Touba Mbeela soxna Ndey Sek daayira maam jaara Touba Mbéew Séréer soxna maam jaara Géy daayira maam jaara Touba Tawa Njaay soxna Maymuna Saar daayira maam jaara Touba Gàdd Xabsu soxna Njole Géy daayira maam jaara Touba Kër Ngalgu soxna Faatu Daabo daayira maam jaara Touba Nguy Gay soxna Teneng Ñang Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Daaru Salaam Thiel soxna Buso Ndooy daayira Maam Jaara Tuuba Belbaawa Espagne soxna Aram Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Lakota Côte d'Ivoire soxna Maguette Cissé daayira Maam Jaara Tuuba Kufi Mbabba Afrique du Sud Serigne Babacar Mbooj daayira Maam Jaara Tuuba Selo France soxna Ñing daayira Maam Jaara Mbuur Sanci Onkar soxna Xadi Sekk daayira Maam Jaara Tuuba Ndéem soxna Binta Sarr daayira Maam Jaara Tuuba Seng soxna Xadi Samb jannatul ma'wa soxna binta amar daayira maam jaara tuuba asalem munawir sudóor soxna ummi sam daayira maam jaara tuuba daarul minan marché maam binta soxna sooda faal daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna maam jaara taal daayira maam jaara tuuba daaru muxti soxna faatu saaxo daayira maam jaara tuuba njaareem soxna sooda jóob daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna astu sek daayira maam jaara tuuba njaareem soxna antakan daayira maam jaara tuuba kër samba soxna faatu bajaan daayira maam jaara tuuba daaru loo soxna maam buso ñang daayira maam jaara tuuba ngaabu soxna daba Fall daayira maam jaara Touba Taggar Ndiobène Ndiaye soxna Bousse Ndiaye daayira maam jaara Touba Ndindi soxna Khady Diagne daayira maam jaara Touba Darou Salaam soxna Makusi daayira maam jaara Touba Thiès soxna Anta Lo daayira maam jaara Touba Fassouré soxna Ndey Guèye daayira maam jaara Touba Gadd Ñaaxal soxna Jaxas Seen daayira maam jaara Touba Ngalab soxna Fatou Touré daayira maam jaara Touba Nceem soxna Hafsa Sarr daayira maam jaara Touba Ndimbu soxna maam jaara Ndiaye daayira maam jaara Touba soxna Rama Ndiaye daayira maam jaara Touba Assirou soxna Babou daayira maam jaara Touba Dakar soxna Anta Diop daayira maam jaara Touba Madiana Seng soxna Xadi Faal daayira maam jaara Touba Jokko soxna Xadi Bey daayira maam jaara Touba Daaru Xafoor soxna Dabandooy daayira maam jaara Touba Asalem soxna maam Xadi Diop daayira maam jaara Touba Ndaam soxna Roqeya Kan daayira maam jaara Touba Daaru Salaam soxna Astu Gey daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna maam jaara Jon daayira maam jaara Pikintali bu mag Dakar soxna Njaxat Lo daayira maam jaara Touba Beyti Amar soxna Faati Gay daayira maam jaara Touba Saam Boqu Atul Mubaarak soxna Mbeen Jeng daayira maam soxna astu dia daayira maam jaara tuuba saam bu xoxatul mubaarak soxna ndey ba daayira maam jaara tuuba jannatul mahwa soxna faatu sugg daayira maam jaara tuuba ngumbala soxna daba sugg daayira maam jaara tuuba kër mbay faal soxna kebe daayira maam jaara tuuba daaru xuddoos marché maam jaara soxna jaara jaxate daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna maam busa jóob daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna daba njaay daayira maam jaara tuuba càlle soxna jee Touba Bobaril soxna Sooda Njaay daayira maam jaara Touba Gerle Seg soxna Ngone Géy daayira maam jaara Touba Foras soxna maam jaara Sall daayira maam jaara Touba Ndamaatu soxna Ndey Faal daayira maam jaara Touba Ngiraneen soxna Silla Lëy daayira maam jaara Touba Daaru Moxti soxna maam jaara Lo daayira maam jaara Touba Alom Ga soxna Xadi Sëy daayira maam jaara Touba Thiès marché central soxna Ami Diop daayira maam jaara Touba Mangasin Baay Daam soxna Xadika daayira maam jaara Touba Gossa soxna Touba Goño soxna Teneng Ngom daayira Maam Jaara Touba Ngiraneen soxna Aji Marem Jaxumpa daayira Maam Jaara Touba Madiyana soxna Ndey Saar daayira Maam Jaara Touba Ndongo soxna Mbenn Si daayira Maam Jaara Touba Paaleen soxna Nogoy Gajaga daayira Maam Jaara Touba Këriñang soxna Awa Njaay daayira Maam Jaara Touba Aynu Rahmati Saam soxna Xadi Caw daayira Maam Jaara Touba Marché Maam Bint soxna Aram Faal daayira Maam Jaara Touba Marché Maam Bint soxna Marem Joob daayira Maam Jaara Touba Daarul Manaan Saxawga soxna Ndey Juuf daayira Maam Jaara Touba Daarul Abdul Alim Xabir Ndaam soxna Jëmb Juuf daayira Maam Jaara Touba Madina Mbooba soxna Ndey Faal daayira Maam Jaara Touba Cees soxna Ndey Jaane daayira Maam Jaara Touba Baba Garaas Bambey soxna Faama Jóob daayira Maam Jaara Touba quartier Maam Jaara soxna Say Jóob daayira Maam Jaara Touba quartier Maam Jaara soxna Mareem Ñang daayira Maam Jaara Touba Daaru Nahim 2 soxna Ndumbe Cubb daayira Maam Jaara Touba Aliya soxna Màggat Saar daayira Maam Jaara Touba Dendey soxna Awa Njaay daayira Maam Jaara Touba Daarul Manaan soxna Ayda Jaw soxna Nogoy Jaañ daayira maam jaara Touba Fora Subaay Laat soxna Mati Ba daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos soxna Ndey Jaw daayira maam jaara Touba Ñibi Lambaay soxna maam Awa Juuf bintu Sëriñ Cerno Juuf Lambaay daayira maam jaara Touba Jamatil soxna Marem Sàll daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Faatu Mbay daayira Sahaadatu Daarayni Touba Louga soxna Asu Xulle daayira maam jaara Touba Daarul Manaan tali bu bees soxna Faama Ngom daayira maam jaara Touba Daarul Manaan guy siyaare soxna Faatu Jaañ Géy daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Mbeen Dem daayira maam jaara tuuba jannatul ma'wa soxna maam anta ture daayira maam jaara tuuba gede soxna mbàkke silla daayira maam jaara tuuba sanc daaru salaam soxna faatu faal daayira maam jaara tuuba parcelle soxna kan daayira maam jaara tuuba daaru cubb soxna joob daayira maam jaara tuuba nasrullahi saam boqatul mubaarak soxna awa sey daayira maam jaara tuuba madinatu salaam soxna marem njaay daayira maam jaara tuuba kokki soxna faati bey daayira maam jaara tuuba mboluñ soxna ami joob daayira maam jaara tuuba ngay soxna jëwriñ soxna ca ba mbay daayira maam jaara tuuba bar mbengeen soxna njawa mbeng daayira maam jaara tuuba mbengeen këri kaw soxna isa njaay daayira maam jaara tuuba kabbu gay soxna afsa ja daayira maam jaara tuuba saam tayba soxna maam awa faal daayira maam jaara tuuba asalem 2 soxna lëy daayira maam jaara tuuba njaane soxna asu jóob bay faal daayira maam jaara tuuba daaru sow soxna binta drame daayira maam jaara tuuba quartier bëgg sëriñ bamba soxna xadi jóob daayira maam jaara tuuba kër bala ndaamaatu soxna yaasin gay Jaañ daayira maam jaara Touba Konte yéen soxna Salaan Diouf daayira maam jaara Touba Jokul soxna Ndawa Diouf daayira maam jaara Touba Cumpelle soxna Diouf daayira maam jaara Touba Compali soxna Diouf daayira maam jaara Touba Paalin soxna Kan daayira maam jaara Touba Paalin Faal soxna Faal daayira maam jaara Touba Ngaabu soxna Matija daayira maam jaara Touba Cukku Ñang soxna Njaata Faal daayira maam jaara Touba Xay Ngeen soxna Xadi Njaay daayira maam jaara Touba Mbayen Sob soxna Naata Sey daayira maam jaara Touba Daru Salaam Merina soxna Mbenn Silla daayira maam jaara Touba Kër Sa Saara soxna Awa Njaay daayira maam jaara Tuuba Ngunjaan soxna Juma Ngom daayira maam jaara Tuuba Ndindi Bugut soxna Wali Ngom daayira maam jaara Tuuba Mbàkke Xewar soxna Fanta Sey daayira maam jaara Tuuba Umul Xuraa soxna Njóoba Jeey daayira maam jaara Tuuba Sanci Daru Salaam soxna Ceene Juuf daayira maam jaara Tuuba Saam soxna Ndey Mbàkke daayira maam jaara Tuuba Madiyan soxna Ndey Jóob daayira maam jaara Tuuba jaara Njaay daayira maam jaara Tuuba Guy Kulóor soxna Xadi Mbay daayira maam jaara Tuuba Daarul Manaan soxna Soda Faal soxna Awa Diop daayira maam jaara Touba daarul manaan foras soxna Mbène Seck daayira maam jaara Touba Mbacke soxna Ayda Ñang daayira maam jaara Touba Mbusoobe soxna Nogoy Njaay daayira maam jaara Touba daarul manaan saxawga soxna Anta Fall daayira maam jaara Touba Caaween soxna Awa Fall daayira maam jaara Touba Càlle soxna Xadi Maroon daayira maam jaara Touba daarul minan soxna Mati Touré daayira maam jaara Touba Caaren Saar soxna Busa Kare daayira maam jaara Touba Alomga soxna Abi Wadd daayira maam jaara Touba Xayra soxna Say Ñang daayira maam jaara Touba Toor Jandeer soxna Maada Njaay daayira maam jaara Touba Siin Leykan soxna Ngóone Jaxate daayira maam jaara Touba Daarul Manaan Foras soxna Nogoy Jeng daayira maam jaara Touba Daarul Xudóos quartier bëgg Sëriñ Bamba soxna Nogoy Mbooj daayira maam jaara Touba Ngay Ngay soxna Paala Ngom daayira maam jaara Touba Aliya soxna Kondaama Bey daayira maam jaara Touba Guy Siyaare soxna Faati Géy daayira maam jaara Touba Daarul Manaan Saxawga soxna Màggat Caw daayira maam jaara Touba Ndaam soxna Faatu Jéey daayira maam jaara Touba Sura soxna Xadi Jóob daayira maam jaara Touba quartier bëgg Sëriñ Bamba soxna Anta Njaay Njaay daayira maam jaara Touba Kébé maire soxna Ndak Samb daayira maam jaara Touba Daaru Jóob soxna Marem Jaxate daayira maam jaara Touba Ngaya soxna Roqi Diouf daayira maam jaara Touba Madiana 1 soxna maam jaara Mbeng daayira maam jaara Touba Njëlbéer soxna Awa Jóob daayira maam jaara Touba Tindodi soxna Aram Boy daayira maam jaara Touba Kër Ñang soxna Ndumbe Mbay daayira maam jaara Touba Dalangaabu soxna maam Busu Diouf daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Soda Njaay daayira maam jaara Touba Kadd Baara soxna Seyna Bu Ñang daayira maam jaara Touba Tali bu bees soxna Ndooy Jëmb Fall daayira maam jaara Touba Njaareem soxna Khady Niang daayira maam jaara Touba Daaru Tansil soxna Ndey Saar daayira maam jaara Touba Marché Ndigal soxna Issa Ngom daayira maam jaara Touba Musoobe soxna Soda Thiam daayira maam jaara Touba Guédé soxna Momi Fall daayira maam jaara Touba Teenu maam Cheikh soxna Mbeen Ngom daayira maam jaara Touba Musoobe soxna Maguette Ndiaye daayira maam jaara Touba Dagga Diouf soxna Adama Gueye daayira maam jaara Touba Jëm Weli Mor ashar soxna ndey caam daayira maam jaara tubaa ngib jibbu faal soxna maye ñang daayira maam jaara tubaa xaayira soxna abi mbàkke daayira maam jaara tubaa daarul xuddoos soxna ndey talla daayira maam jaara tubaa car saadi soxna mbaba njaay daayira maam jaara tubaa mux mux soxna awa seen daayira maam jaara tubaa quartier bëgg sëriñ bamba soxna lawbe silla daayira maam jaara tubaa belel soxna kumba gay daayira maam jaara tubaa kuréeg maxtaar soxna xadi caam daayira maam jaara tubaa daaru rahman soxna mbaacu géy daayira maam jaara tubaa madiana soxna coro Touba ñaari Baye Fall soxna Xadi Mbàkke daayira maam jaara Touba ngaañax jeng soxna Nagoy Coy daayira maam jaara Touba ngembe malal soxna Ndey Mbeng daayira maam jaara Touba Daaru Xuddoos quartier bëgg Sëriñ Bamba soxna Njóobaloo daayira maam jaara Touba Guy Tukulóor soxna Kine Saar daayira maam jaara Touba Daaru Minan ñetti tablo soxna Ndey Caam daayira maam jaara Touba Saate soxna Aysatu Jon daayira maam jaara Touba Pulaayam soxna Aram Njaay daayira maam jaara Touba Njaareem Géejaway soxna Asal rahmatullahi Fall daayira maam jaara jannatul firdawsi soxna faat Diouf daayira maam jaara Touba daarul minan butigu faal soxna jaata Samb daayira maam jaara Touba kër mbukki soxna xadiloo daayira maam jaara Touba mbaaba garas njaa njaaña Touré daayira maam jaara Touba daaru Diop soxna maam say sek daayira maam jaara Touba mbàkke yoonu tiib soxna ngay na njaay daayira maam jaara Touba xaayira de soxna maam jaara Diop daayira maam jaara Touba umul xuraa soxna faama Fall daayira maam jaara Touba jannatu soxna kinne caam daayira maam jaara Touba taybatul karim ilipor soxna tuuti njaay Njaay daayira maam jaara Touba Njaane soxna Ndey Binta Jeng daayira maam jaara Touba Minatul Axlaa soxna Xadi Jaañ daayira maam jaara Touba Xaayira soxna Ndey Jeng daayira maam jaara Touba Daaru Xuddoos soxna maam Busa Jeng daayira maam jaara Touba Mbos soxna Sali Boob daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Sooda Jaañ daayira maam jaara Touba Daaru Salaam Séréer soxna Ami Ngom daayira maam jaara Touba Cilla Sancaan soxna Faatu Xumma daayira maam jaara Touba Tali maam jaara Dakar soxna Ngoone Jóob daayira maam jaara Tuuba jàkkay njaane soxna gay ñang daayira maam jaara Tuuba njaween jaw soxna faati kase njaay daayira maam jaara Tuuba janatu nahim aloom ga soxna ndey mbàkke daayira maam jaara Tuuba njaaween soxna sooda caam daayira maam jaara Tuuba kër wele soxna faatu jaw daayira maam jaara Tuuba daarul xudóos soxna faati jóob daayira maam jaara Tuuba madiana soxna ndaama njaay daayira maam jaara Tuuba kër lëy soxna maam jaara mbàkke daayira maam jaara Tuuba saam soxna ndey siise daayira maam jaara Tuuba newraan soxna fay daayira maam jaara Tuuba surra soxna maam amiloo daayira maam jaara tuuba arafat soxna kumba jóob daayira maam jaara tuuba njenne lagan soxna xari faal daayira maam jaara tuuba palmeew soxna faatu faal daayira maam jaara tuuba mbake altu daaru salaam soxna amin ndaam li daayira maam jaara tuuba jannatu salaam soxna jabba sek daayira maam jaara tuuba madiyanna soxna astu ja daayira maam jaara tuuba ndaam soxna abiñang daayira maam jaara tuuba dogondu soxna ndey njaay daayira maam jaara tuuba ndaamaatu cinq tablo baay mbeng maam booy faal daayira maam jaara tuuba ngayen dulo soxna ami loo daayira maam jaara tuuba ndulo soxna dégéen mbay daayira maam jaara tuuba maboy njaay soxna aram joob daayira maam jaara tuuba mabuy njaay soxna aminata joob daayira maam jaara tuuba mabuy njaay soxna faatu ngom daayira maam jaara tuuba mabuy njaay soxna mbay daayira maam jaara tuuba mboor 1 Thiès soxna xadi joob daayira maam jaara tuuba fora subay laar soxna maam jaara siise daayira maam jaara tuuba yoonu daaru rahman soxna maam jaara géy daayira maam jaara tuuba gedes soxna aminata loo daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos soxna bintu jaw daayira maam jaara tuuba alom ga soxna maam jaara sàmb daayira maam jaara tuuba moske soxna aji lamp jaañ daayira maam jaara tuuba janatul mahwa ndar faal soxna marem mbakke daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna fatika daayira maam jaara tuuba aliya soxna aram joob daayira maam jaara tuuba gede soxna maam jaara loo daayira maam jaara tuuba daarul minan 1 soxna mbeer ñang daayira maam jaara tuuba daarul minan butigu galas soxna pende géy daayira maam jaara tuuba mariana 2 soxna mati ture daayira maam jaara tuuba tali bu bees soxna sën njaay daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna ami jóob daayira maam jaara tuuba bëbërël soxna ndey anta sek daayira maam jaara tuuba daaru salaam teneeful soxna ami jóob daayira maam jaara tuuba ngira neen soxna sagar njaay daayira maam jaara tuuba ndindi soxna maam mati sek daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna faati coy daayira maam jaara tuuba gede soxna ndaag ñang daayira maam jaara tuuba jannatu nahim soxna mati jóob daayira maam jaara tuuba mbar foras soxna ndey mbay daayira Thiam soxna maam jaara seen daayira maam jaara tuba teenu maam cheikh soxna mbenn diouf daayira maam jaara tuba daarul xudoos soxna xadi njaay daayira maam jaara tuba ndindi soxna faat seen daayira maam jaara tuba quartier bëgg sëriñ bamba soxna faat sey daayira maam jaara tuba gadda afe soxna xadi amar daayira maam jaara tuba lugul soxna faatu saar daayira maam jaara tuba sam marché bu bees soxna ramata silla daayira maam jaara tuba grand dakar soxna ndey xoll daayira maam jaara tuba xayra soxna màggat lo daayira maam jaara tuba mbal soxna sooda faal daayira maam jaara tuuba ndanku sifa sudóori soxna ndey Touré daayira maam jaara tuuba moské soxna jama sëy daayira maam jaara tuuba ndaat jaañ soxna ndey mbeng daayira maam jaara tuuba dawax soxna kumba pen daayira maam jaara tuuba njambal gajaga soxna jobbe njaay daayira maam jaara tuuba saxawga soxna njaaye mbay daayira maam jaara tuuba kayal soxna kinne jàllo daayira maam jaara tuuba ndokalière soxna ndey jóob daayira maam jaara tuuba lansaar soxna xadi jóob daayira maam jaara tuuba yàlla jóob soxna fari jóob daayira maam jaara tuuba sow soxna faatu saar daayira maam jaara tuuba korni su gede def soxna Ngone Jabaay daayira maam jaara Touba Sam marché bu bees soxna Faat Jaay daayira maam jaara Touba Paalin Pon soxna maam Diop daayira maam jaara Touba Taalin Pon soxna Faatu Géey daayira maam jaara Touba Paalin soxna Faama Jiite daayira maam jaara Touba Sam soxna Ndaak Faal daayira maam jaara Touba Alom Ga soxna Seyna bu Jeng daayira maam jaara Touba Ndam Lasar soxna Mati Njaay daayira maam jaara Touba Mbàkke Xewar soxna Ngambuka daayira maam jaara Touba Sam Tayba soxna Awa Diop daayira maam jaara Touba Lansar soxna Njaxat Ñaan daayira maam jaara Touba yoonu Daaru Rahmaan soxna soxna Awa Diop daayira maam jaara Touba Kër Ñang soxna Nagoy Jaañ daayira Miftaahu Sahada Touba IPSA Espagne soxna Ndey Basel daayira Miftaahu Nasri soxna Magat Ñas daayira maam jaara Touba Jannatul Mahwa soxna Xadi Silla daayira maam jaara Touba Daarul Minan Foras soxna Soda Touré daayira maam jaara Touba Belel Jolof soxna Bintu Badiane daayira maam jaara Touba Mbaxeen soxna Magat Jeng daayira maam jaara Touba Jokul soxna Ngóone Diop daayira maam jaara Touba Saabixoon soxna Aram jaara tuuba daarul manaan soxna adama Diop daayira maam jaara tuuba njaakaan soxna gay Diouf daayira maam jaara tuuba calaaga ñaan soxna aram Diop daayira maam jaara tuuba Louga kër sëriñ basiru soxna madina sàmb daayira maam jaara tuuba madiana soxna maam faati mbakke daayira maam jaara tuuba benn baraag dakar soxna ndey astu géy daayira maam jaara tuuba benn baraag soxna aram Diop daayira maam jaara tuuba Grand Médine Dakar soxna Anta Seen daayira maam jaara tuuba daaru moxti soxna ndey silla daayira maam jaara tuuba mbuur soxna jobbe Lo daayira maam jaara Touba xaayira soxna Maguette sek daayira maam jaara Touba asalem soxna Diop ak Serigne Abdou Diop daayira maam jaara Touba Looyen Baqiya soxna Njaay Bey daayira maam jaara Touba Musoobe soxna Say Mbeng daayira maam jaara Touba Sam Tayba soxna Ami Wadd daayira maam jaara Touba Sam Boqatul Mubarak soxna Faati Jaañ daayira maam jaara Touba Njéefun Paal soxna Caara Tin daayira maam jaara Touba Thiès soxna Nogoy Saar daayira maam jaara Touba Pout soxna Astu Géey daayira maam jaara Touba Bari Daaru Muxti soxna Ndey Lo daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna ndeyloo daayira maam jaara tuuba babërël soxna maam faati mbàkke daayira maam jaara tuuba korniisu gede soxna nogoy coy daayira maam jaara tuuba yoonu daaru rahmaan soxna coro faal daayira maam jaara tuuba foras soxna faamaloo daayira maam jaara tuuba daaru salaam sanciya soxna mbenn sek daayira maam jaara tuuba mbegere soxna awa siise daayira maam jaara tuuba marché central thiès soxna binte bey daayira maam jaara tuuba saamuk sëriñ baara xuréja soxna faat silla daayira maam jaara tuuba tablo mbay sek soxna faat juuf daayira maam jaara tuuba lambaay daqaar soxna mbenn sek daayira maam jaara tuuba jàkkay sëriñ abdu xaadir soxna jaal géey daayira maam jaara tuuba marché bayal ba soxna abdul karim daayira maam jaara tuuba gaar bu ndaw sëriñ abdu baaxe ba daayira maam jaara tuuba jàmm gën cees soxna uba njaay daayira maam jaara tuba kër ñang soxna awa jeng daayira maam jaara tuuba marché gédé soxna jaara jeng daayira maam jaara tuuba daarul minan marché maam bint soxna yaama jóob daayira maam jaara tuuba bakkel soxna ndey faati njaay daayira maam jaara tuuba are baay mbeng lan saar soxna aram noofoor daayira maam jaara tuuba mbàkke baari 2 soxna faama njaay daayira maam jaara tuuba gede soxna busaloo daayira maam jaara tuuba daarul manaan saxaw ga soxna faat njaay daayira maam jaara tuuba aliya soxna xadi jeng daayira maam jaara tuuba daaru salaam soxna jamañang daayira maam jaara tuuba jannatul mahwa soxna asu amar daayira maam jaara tuuba kër masayer soxna anta dia daayira maam jaara tuuba almaañ soppey sëriñ faadilu soxna ndumbe njaay daayira maam jaara tuuba saam soxna faat ndaagu fay jaara Touba Taïba Mbay soxna Nagoy Njaay daayira maam jaara Touba kër Serigne Louga soxna Xari Sey daayira Subula Salaam soxna Faama Jóob daayira maam jaara Touba Louga soxna maam Asu Sek daayira maam jaara Touba Dakar soxna Aji Afsa Sek daayira maam jaara Touba Añam soxna Ami Géy daayira maam jaara Touba Xayra 2 soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Xayra 2 soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Xayra 2 soxna Faati Géy daayira maam jaara Touba Daarul Manaan Foras soxna Xadi Géy daayira maam jaara Touba Marché Xayra 2 soxna Rama Jeng daayira maam jaara tuuba xandan soxna kumba mbay daayira maam jaara tuuba taaleen wolof soxna kumba njaay daayira maam jaara tuuba kéeloo faal soxna ndey saar daayira maam jaara tuuba kumba maal géngi néew soxna maam jaara faal daayira maam jaara tuuba baak samba joor soxna yaasin mbuub daayira maam jaara tuuba kër ma kodde baar soxna gay daayira maam jaara tuuba gorom soxna aadama cuun daayira maam jaara tuuba mbir pir gu rëy soxna mbenn jaañ daayira maam jaara tuuba njéegéej soxna maam jaara tuuba géejawaay soxna faatu gay daayira maam jaara tuuba xomba taxawal soxna asu njaay daayira maam jaara tuuba birkom loo soxna ndey sooda loo daayira maam jaara tuuba jàmma gën soxna maam asa mbuub daayira maam jaara tuuba bir soxna mbay daayira maam jaara tuuba asalem soxna faati amar daayira maam jaara tuuba balgéey soxna awa cubbu daayira maam jaara tuuba daarul xudoos soxna binta mbàkke daayira maam jaara tuuba ngànnaado soxna maam jaara saar daayira maam jaara tuuba mariana siis soxna xadi joob daayira maam jaara tuuba yoonu tindoodi soxna ami njaay daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna ndey gumbala daayira maam jaara tuuba madiyanam soxna maam jaara beey daayira maam jaara tuuba njaween soxna asu jaw daayira maam jaara tuuba kër mbir ndaw soxna maam jaara caam daayira maam jaara tuuba ñaxalaan soxna màggat njaay daayira maam jaara tuuba notaire dakar soxna joor ba daayira maam jaara tuuba bombali soxna astu mbàkke lay daayira maam jaara tuuba ngël xuma soxna ngoone joob daayira maam jaara tuuba ngël xuma soxna ndaang mbaw daayira maam jaara tuuba géejaway soxna astu kase daayira maam jaara tuuba guy mbind soxna maam jaara jaxate daayira Ndar soxna Ndey Jaw daayira Maam Jaara Tuuba si xaw ga soxna Kumba Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Njuufeen soxna Ndey Njaay daayira Maam Jaara Tuuba Musoobe soxna Say Faal daayira Maam Jaara Tuuba Magasin Baay Daam soxna Cekkakan daayira Maam Jaara Tuuba Baxdaar soxna Maam Jaara Basil daayira Maam Jaara Tuuba Saam soxna Ummi Faal daayira Maam Jaara Tuuba Saambe soxna Baali Jóob daayira Maam Jaara Tuuba Asalem 2 soxna Mbaaco Fay daayira Maam Jaara Tuuba Umul Xuraa soxna Njéeme Sàmb daayira Maam Jaara Tuuba Daarul Manaan soxna Ayda Wat daayira daayira maam jaara tuuba ndaam marché okas 2 soxna jimbi géy daayira maam jaara tuuba tali bu bees soxna faati Touré daayira maam jaara tuuba jannatu nahim aliya soxna penda Diop daayira maam jaara tuuba yoonu daaru rahman soxna binte Cissé daayira maam jaara tuuba marché maam jaara soxna faati Mbacke daayira maam jaara tuuba salaam soxna ndey marem sare daayira maam jaara tuuba xayra 2 soxna mbenn Mbacke daayira maam jaara tuuba gede soxna xadi Diop daayira maam jaara tuuba teenu maam cheikh ñaari pëno soxna aram ja daayira maam jaara tuuba bassin sëriñ murtada soxna busa beey daayira maam jaara tuuba jàkkay muuma soxna mati gey daayira maam jaara tuuba mariana deux soxna jaal suwaare daayira maam jaara tuuba mbuluñ siini soxna sooda jeng daayira maam jaara tuuba lan saar soxna koddu kanji daayira maam jaara tuuba saam soxna kumba caam daayira maam jaara tuuba këriñang soxna gay daayira maam jaara tuuba daaru njaay soxna busa njaay daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna ami njaay daayira maam jaara tuuba asalem soxna anta jóob daayira maam jaara Touba Saam soxna Kunta Coy daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Ndey Joob daayira maam jaara Touba Ndaar Jaañ soxna Ndey Jaañ daayira maam jaara Touba Daarul Manaan Sonatel 2 soxna Buso Sow daayira maam jaara Touba Njaak soxna Marem Jonn daayira maam jaara Touba Tukulóor Sall soxna Aada Kebe daayira maam jaara Touba Kër Makodd soxna Marem Puy daayira maam jaara Touba Ndaamaatu soxna Nogoy Ngom daayira maam jaara Touba Kër Sambakan soxna Nogoy Ngom daayira maam jaara Touba Gede soxna Coro Sall daayira maam jaara Touba Pikin Ginaaw Raay soxna Faati Jeng daayira maam jaara tuuba postu caaroy soxna ajaratu aram ñang daayira maam jaara tuuba kéel soxna kooba mbay daayira maam jaara tuuba pir soxna jaal géy daayira maam jaara tuuba ñib soxna faati njaay daayira maam jaara tuuba surukuñ soxna malaadu ndaw daayira maam jaara tuuba kanjaane soxna mbakke jeng daayira maam jaara tuuba daara kaddu luga soxna aada sow daayira maam jaara tuuba luga soxna awa sey daayira maam jaara tuuba malika soxna soxna maymuna dem daayira maam jaara tuuba daayira maam jaara tuuba kawlax soxna na fi jàllo daayira maam jaara tuuba jàmpana soxna faati ngabbu daayira maam jaara tuuba cilla soxna faati mbeng daayira maam jaara tuuba bamako soxna amitaal daayira maam jaara tuuba ceytu soxna say faal daayira maam jaara tuuba mbaya soxna kumba jeng daayira maam jaara tuuba malika soxna say jaw daayira maam jaara tuuba kan saate soxna maymuna kan daayira maam jaara tuuba mbakke dimb soxna astu mbakke daayira maam jaara tuuba ndiireen soxna ndeela jeng daayira maam jaara tuuba ngaay mexe soxna ami fay daayira maam jaara tuuba ndiir Ndiréen soxna Nogoy Guèye daayira maam jaara Touba Bal Sand soxna Kumba Ndiaye daayira maam jaara Touba Xayra 2 soxna Kuraloo daayira maam jaara Touba Tawfeex soxna maam jaara Diouf daayira maam jaara Touba Sanjara soxna Busa Faal daayira maam jaara Touba Jaksaaw soxna Màggat Jeng daayira maam jaara Touba Angal Muus soxna Ndey Faal daayira maam jaara Touba Géejawaay Baay Laay soxna Faati Adama Guèye daayira maam jaara Touba Sanjara soxna Ante Jeey daayira maam jaara Touba Coo Jogoy soxna Mbeen Diouf daayira maam jaara Touba Jokakeel soxna Xadi Seen daayira maam jaara jaara tuuba banjul soxna ami géy daayira maam jaara tuuba suumeem soxna maymuna jeng daayira maam jaara tuuba jàmma gën soxna ndey sek daayira maam jaara tuuba daaru sànd soxna màggat yat daayira maam jaara tuuba malika soxna ummi fay daayira maam jaara tuuba caajaay soxna xadi aan daayira maam jaara tuuba 28 daarul minan soxna moomi géy daayira maam jaara tuuba faal soxna ndey sek daayira maam jaara tuuba jébbulu jaañ soxna jébbulu jaañ daayira maam Touba Daaru Muxti soxna Astu Géy daayira Maam Jaara Touba Ashaabul Jannati Dakar soxna Mati Kebe daayira Maam Jaara Touba Ngébbal soxna Joor Joob daayira Maam Jaara Touba Guy Murita Ngéej soxna Njaaye Joob daayira Maam Jaara Touba Afe Murit soxna Seyna bu Wilaan daayira Maam Jaara Touba Kawlax soxna Yaasin Joob daayira Maam Jaara tuba Daarul Xudoos soxna Say Jeng Maam Jaaba daayira Maam Jaara Touba Cees soxna Saybata Jaañ daayira Maam Jaara Touba Daarul Xudoos soxna Ndey Jaw daayira Maam Jaara Touba Ali Mbenda soxna Awalo daayira jaara tuuba ndaamaatu soxna say jaañ daayira maam jaara tuuba kafrin soxna daba jóob daayira maam jaara tuuba daarul karim soxna tuuti njaay daayira maam jaara tuuba sanc malem soxna anta jeng daayira maam jaara tuuba jànki kow soxna ami jóob daayira maam jaara tuuba grand médine dakar soxna ngóone géy daayira maam jaara tuuba grand jurbel soxna rama jaañ daayira maam jaara tuuba bangaa soxna saala ñing daayira maam jaara tuuba mbuur taaxum kër ay meeru soxna awa njaay daayira maam jaara tuuba koppentum soxna ndey jóob Touba Saate Ngom soxna Mbeen Fall daayira Maam Jaara Touba Njaañ soxna Faati Fall daayira Maam Jaara Touba Tayba soxna Faati Fall daayira Maam Jaara Touba Kaolack soxna Falloo Jaxumpa daayira Maam Jaara Touba Saxawga soxna Jeeg Mbaay daayira Maam Jaara Touba Kër Caare soxna Faati Ndong daayira Maam Jaara Touba Ndaqaar Mbay soxna Nogay Géey daayira Maam Jaara Touba Kédougou soxna Maam Jaara Ndaw daayira Maam Jaara Touba Dakar soxna Awa Joob daayira Maam Jaara Touba Dakar soxna Aminata Lo daayira Maam Jaara Touba Bayti Géey nga kenn faal soxna jaal faal daayira maam jaara tuuba caar soxna asta sek daayira maam jaara tuuba daaru mbay soxna binta jóob daayira maam jaara tuuba cees soxna ndey jaw daayira maam jaara tuuba kamit sàmb soxna maram silla daayira maam jaara tuuba faal jogo soxna xaar mbay daayira maam jaara tuuba teenu tuuba soxna maam jooja géen daayira maam jaara tuuba kër malik ba soxna roqaye juuf daayira maam jaara tuuba ngomeen soxna buso jóob daayira maam jaara tuuba marché maam binte soxna daba jaw daayira maam jaara tuuba jàmm gën lan saar soxna anta faal daayira maam jaara tuuba mbal soxna dabakan maam isa masamba daayira maam jaara tuuba paal xilli soxna maram njaay daayira maam jaara tuuba dagaan samb soxna xadi ngom daayira maam jaara tuuba tul soxna binta mbàkke daayira maam jaara tuuba tëgis soxna ndey jonn puy daayira maam jaara tuuba yabutil jóob soxna fatma daam jóob daayira maam jaara tuuba njabootu sëriñ mbay xari jaxate soxna maam busa jaxate daayira maam jaara tuuba fadam jóob soxna faat siin amar daayira maam jaara tuuba kokki mayib soxna mbenn ba daayira maam jaara tuuba parcelle soxna soodo xumma daayira maam jaara tuuba alansa Sarr soxna Ndey Suur daayira maam jaara Touba Njurki soxna Kumba Gueye daayira maam jaara Touba Mbacke soxna Kebe Sall daayira maam jaara Touba Ndalla soxna Ami Baaxum daayira maam jaara Touba Saam Jannatul Firdawsi soxna Faati Jaañ daayira maam jaara Touba Jàkkay Sëriñ Mbay Njaay soxna Bintu Njaay daayira maam jaara Touba Madiyaana soxna Ami Dia daayira maam jaara Touba Mbaaxe Jóob soxna Naar Fay daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Anta Jóob daayira maam jaara Touba Taïf Mbacke soxna Ngoone Siise daayira maam jaara Touba Daarul Xudoos soxna xadi dem daayira maam jaara tuuba daaru rahmaan soxna mbay mbàkke daayira maam jaara tuuba sam marché bu tas soxna mbay juuf daayira maam jaara tuuba jàmm gën dakar soxna marem fay daayira maam jaara tuuba jàmm gën dakar soxna maam jaara juuf daayira maam jaara tuuba cees soxna ayda faal daayira maam jaara tuuba fora subaylaat soxna ante bey daayira maam jaara tuuba baxdad de soxna faati ñang daayira maam jaara tuuba baxdad de soxna faama jóob daayira maam jaara tuuba mbàkke baari soxna degen caam daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna tuuti Fatick Fall daayira maam jaara Touba Caaroy Dakar soxna maam Bousso Ndiaye daayira maam jaara Touba Mbacke soxna Jaal Guèye daayira maam jaara Touba Rufisque Guy Morit soxna Faat Lay daayira maam jaara Touba Ngaay Mexe soxna Roqeya Fall daayira Subula Salaam Touba Géejawaay soxna Ayda Dieng daayira maam jaara Touba Jajji Ndiaye soxna Moomi Ndiaye daayira maam jaara Touba Géejawaay Daaru Salaam soxna Njiita Fall daayira maam jaara Touba Mbacke ñaari Baay Fall soxna Faat Lay daayira maam jaara Touba Daaru Njaxate soxna Faat Caam daayira maam jaara Touba Cekkeen soxna mbeen géy daayira maam jaara tuuba mbar mbengeen soxna njome mbeng daayira maam jaara tuuba janatu nahim soxna ndeyloo daayira maam jaara tuuba péncum mbay wadd soxna ngom daayira maam jaara tuuba gede soxna bintu kumaan daayira maam jaara tuuba daaru njaay soxna busa faal daayira maam jaara tuuba gede soxna siini saar daayira maam jaara tuuba kiloor soxna jaara faal daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna yaasin gay daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna mbengte njaay daayira maam jaara tuuba njum gent soxna ngóone mbay daayira maam jaara tuuba njaga ñaaw soxna ayda sekk daayira maam jaara tuuba ndoofaan soxna moomi mbàkke daayira maam jaara tuuba daaru jóob soxna mati sey daayira maam jaara tuuba kokki kadd soxna aji jóob daayira maam jaara tuuba cees soxna astu géy daayira maam jaara tuuba gede soxna maam jaara kamara daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna xari jóob daayira maam jaara tuuba saraxaan soxna saar daayira maam jaara tuuba ceenoo soxna bintu njaay daayira soxna astu coro faal daayira maam jaara tuuba mbuur soxna mbeen géy daayira maam jaara tuuba caaroy dakar soxna astu samb daayira maam jaara tuuba kuujaan masaalikul jinaan soxna jobbe ley daayira maam jaara tuuba madiyaana soxna maam jaara njaay daayira maam jaara tuuba kër mañang luga soxna kura sey daayira maam jaara tuuba palik soxna maymuna mbegere daayira maam jaara tuuba cees madina faal soxna xadija daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna maam busa mbake daayira maam jaara tuuba saam soxna bintu jenn daayira maam maam jaara tuuba barñi soxna kinne soog daayira maam jaara tuuba kuure caam soxna kinne géy daayira maam jaara tuuba caxaw gay soxna koddu gay daayira maam jaara tuuba kuwaari soxna maam jaara faal daayira maam jaara tuuba turki soxna roqeya candum daayira maam jaara tuuba ndindi soxna maam busa jaw daayira maam jaara tuuba bayti faal soxna wali sow daayira maam jaara tuuba sew ture soxna mbenge samb daayira maam jaara tuuba parxa soxna marem darame daayira maam jaara tuuba cikki faal soxna ummi faal daayira maam jaara tuuba campement ngekoor Sox soxna Jobbe Njaay daayira maam jaara Touba Kër Masaar soxna Faati Sekk daayira maam jaara Touba Fosti Pikin Dakar soxna Faati Siise daayira maam jaara Touba Maris Dakar soxna maam jaara Mbakke daayira maam jaara Touba Mbuur soxna Faatu Awa Sey daayira maam jaara Touba Xabbaan soxna maam Buse Jeng daayira maam jaara Touba Jàmmagën Dakar soxna Nogoy Njaay daayira maam jaara Touba Dakar soxna Ndey Siise daayira maam jaara Touba Géejawaay Dakar soxna Ndey Jaañ daayira maam jaara Touba Kër Mbay Faal soxna Xadi Luum daayira maam maam jaara Touba Fass Mbao soxna maam jaara Silla daayira maam jaara Touba Sanjara soxna Fatou Gueye daayira maam jaara Touba Sanjara soxna Faat Baara Sarr daayira maam jaara Touba Gadd Xabsu soxna Faama Ba daayira maam jaara Touba Merina Sill soxna Maane Njaay daayira maam jaara Touba Yëmbal soxna Say Fay daayira maam jaara Touba Mbuur soxna Mbenn Samb daayira maam jaara Touba Ngeen Gueye soxna Njóoba Sëy daayira maam jaara Touba Tali bu bees soxna Waalo Mbakke daayira maam jaara Touba Kawlax soxna Faatu Sàll daayira maam jaara Touba Mbuur soxna soxna Awa Njaay daayira maam jaara Touba Malika Kaat soxna Yaande Seen daayira maam jaara Touba Parcelles Unité 5 soxna Astu Ndiir daayira maam jaara Touba Nguy soxna Ami daayira maam jaara Touba Boowe soxna Magat Saar daayira maam jaara Touba Daruka soxna Anta Diop daayira maam jaara Touba Cilla 2 soxna Laaye Jeng daayira maam jaara Touba Cilla Daraman 2 soxna Laaye Jeng daayira maam jaara Touba Daaru Muxti soxna Binta Sall daayira maam jaara Touba Sar Saarab soxna Siini Ndooy daayira maam jaara Touba Mbegere soxna Rama Ibrahima Ndiaye daayira maam jaara Touba Fulado soxna Tako Seck daayira maam jaara Touba Daaru Jaxate soxna Mariamu Jaxate daayira maam jaara Touba Caareen soxna Dabalo daayira maam jaara Touba Njaween soxna maam jaara Jeng daayira maam jaara Touba Bukki Joor soxna Aminata Jeng daayira maam jaara Touba Ndaween soxna Faati Cuun daayira maam jaara Touba Sokano Sëriñ Mamor Mbakke Saam daayira maam jaara Touba Joos Mbuur soxna Aji Njaay daayira maam jaara Touba Kër Masaar soxna Koddu Kanji daayira Mafatihul Bisri soxna Maymuna Gueye daayira maam jaara Touba cité police Dakar soxna Fatma Fall daayira maam jaara Touba Géejawaay soxna Nogoy Tine daayira maam jaara Touba Bustaan soxna Awa Saaxo daayira maam jaara Touba Madina Dieng soxna Anta Seck daayira maam jaara Touba Njéey soxna Ndey Fall daayira maam jaara Touba Ndamatu soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Njaareem soxna Awaka daayira maam jaara Touba Darul Xuddoos Kër Wele soxna Ami Ñing daayira maam jaara Touba Silla soxna Awa Seex Pen daayira maam jaara Touba maam jaara soxna daba fay daayira maam jaara tuuba dakar soxna na bu njaay daayira maam jaara tuuba ndaam soxna njóoba jeng daayira maam jaara tuuba mbege soxna maane kebe daayira maam jaara tuuba mbege soxna faama siibi daayira maam jaara tuuba umul xuraa soxna afsa faal daayira maam jaara tuuba belal soxna maam jaara ture daayira maam jaara tuuba daarul alimul xabiir soxna ndaag ñang daayira maam jaara tuuba aloom ga soxna maram géy daayira maam jaara tuuba saam aynu rahmati soxna mbaaco baaxum daayira maam jaara tuuba Diouf daayira maam jaara Touba Tindoodi soxna maam jaara Gay daayira maam jaara Touba Daaru Muxti soxna Ramalo daayira maam jaara Touba Are Daaru Salaam soxna Aysa Caam daayira maam jaara Touba Asalem soxna Xadi Njaay daayira maam jaara Touba Jéemul soxna Mbeen Mbay daayira maam jaara Touba Kër Awa Joor soxna Yaasin Jóob daayira maam jaara Touba Umul Xuraa soxna Naar Bob daayira maam jaara Touba Asalem soxna Mbeen Diouf daayira maam jaara Touba Kër Ñang soxna Faati Sey daayira maam jaara Touba Marché Ocass soxna Ngóone Ngom daayira maam jaara Touba Yoff Tongoor soxna Faama Diop daayira Maam Jaara Touba Ndamaatu soxna Faatu Njaay daayira Maam Jaara Touba Gédé soxna Faatu Ñang daayira Maam Jaara Touba Mbeng soxna Faatu Diop daayira Maam Jaara Touba Daaru Muxti soxna Fatma Ñang daayira Maam Jaara Touba Saxawga soxna Mbenda Taal daayira Maam Jaara Touba Dakar Tabloti Waawoon soxna ki Nenger daayira Maam Jaara Touba Kayal soxna Kumbaloo daayira Maam Jaara Touba Gédé soxna Jaw daayira Maam Jaara Touba Padowa Dakar soxna Aysatu Maar Géy daayira Maam Jaara Touba ceebo saar daayira maam jaara tuba looyeen soxna faati saar daayira maam jaara tuba si xawga soxna njéeme jóob daayira maam jaara tuba faara subaay laat soxna seyna bu beey daayira maam jaara tuba ndandang soxna ayda jóob daayira maam jaara tuba janatul mahwa soxna musligéey daayira maam jaara tuba daarul minan soxna bintu samb daayira maam jaara tuba cuuneen soxna màggat njaay daayira maam jaara tuba ndaamaatu soxna ndey jóob daayira maam jaara tuba njàppu soxna maam jaara ture daayira jasbul xuloob tuba surra soxna pende jeng daayira maam jaara tuuba binjona sëriñ muudu xari géy daayira maam jaara tuuba jannatul firdawsi Thiès soxna aram njaay daayira maam jaara tuuba saam soxna jaxu kare daayira maam jaara tuuba umul xuraa soxna ndeela sek daayira maam jaara tuuba ndindi soxna aji ndimbulaan daayira maam jaara tuuba madiana trois soxna ndey mbeng daayira maam jaara tuuba jàmm gën mbàkke soxna faati faal daayira maam jaara tuuba teenu maam cheikh soxna ngóone njaay daayira maam jaara tuuba njara daqaar soxna daba njaay maam jaara tuba daaru mbul soxna maam bu sa beey daayira maam jaara tuba ceenoo jaw soxna ndey joob daayira maam jaara tuba ngaay daaru njaay soxna ndey njaay daayira maam jaara tuba musoobe soxna sooda jon daayira maam jaara tuba ngaddantu soxna faati amar daayira maam jaara tuba moske soxna màggat joob daayira maam jaara tuba bustaan loo soxna astu jaxate daayira maam jaara tuba babërël soxna astu lëy daayira maam jaara tuba saam kër gol soxna mbay daayira maam jaara tuba saam marché bu maam jaara tuuba jannatu nahim soxna marem faal daayira maam jaara tuuba looyeen soxna awa jóob daayira maam jaara tuuba belel faal soxna awa faal daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna xuja faal daayira maam jaara tuuba lumbel kelli soxna mari si daayira maam jaara tuuba paaleen soxna faati njaay ba daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos soxna say faal daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos soxna ndey faal daayira maam jaara tuuba umul xuraa soxna xadi géy daayira maam jaara tuuba gedem soxna anta kan daayira maam jaara tuuba fora subaylaat Ndaw daayira maam jaara Touba Balal soxna Seen daayira maam jaara Touba Daaru Nahim Hisbuya soxna Aram Badiane daayira maam jaara Touba Ngéloom soxna Nogay Diba daayira maam jaara Touba Tali bu bees soxna Ndey Jeng daayira maam jaara Touba Sanci Daaru Salaam soxna Njéeme Sek daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Joor Joob daayira maam jaara Touba Ngiraneen soxna Coofa Jaañ daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Ayda Kebe daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna Kana Caam daayira maam jaara Touba Looyeen soxna Nati Gajaga daayira maam jaara Touba xew ga soxna jeeng mbaay daayira maam jaara tuba daarul manaan ñaari pëna soxna mayja daayira maam jaara tuba xayra deux soxna xadi mbàkke daayira maam jaara tuba kornisu gede soxna jeeng njaay daayira maam jaara tuba paddu badd foras soxna ami sek daayira maam jaara tuba mbayeen soxna ummi beey daayira maam jaara tuba teenu maam cheikh soxna ndey ñang daayira maam jaara tuba deqle soxna maam jaara juuf daayira maam jaara tuba ndamaatu soxna faatu beey daayira maam jaara tuba saam soxna maam jaara géy daayira maam jaara tuba daarul alimul xabir soxna maylu Lo daayira maam jaara Touba Guédé soxna Samb Omar Fall daayira maam jaara Touba Mosquée soxna Mati Ndiaye daayira maam jaara Touba Njeyen Tundu soxna Mbeen Ndiaye daayira maam jaara Touba Darul Manaan soxna Aji Ndumbe Gueye daayira maam jaara Touba Darou Salam Guédé soxna Mbeen Ndiaye daayira maam jaara Touba Darul Minan Corniche soxna Fatou Diaw daayira maam jaara Touba Darou Moxti soxna Boussa Seck daayira maam jaara Touba Tibnar soxna maam jaara Diouf daayira maam jaara Touba Umul Xura soxna Marem Sey daayira maam jaara Touba Guy Ndaween soxna Mbayta Seck daayira maam jaara tuuba jéemul soxna màggat loo daayira maam jaara tuuba tali bu bees soxna faatu njaay loom daayira maam jaara tuuba sam marché ndigal soxna xadi daraame daayira maam jaara tuuba daarul minan marché maam binte soxna ndey cekka njaay daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna faati mayib njaay daayira maam jaara tuuba domaine ba soxna sooda faal daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna xadi jaxate daayira maam jaara tuuba xaymaya soxna sooda faal daayira maam jaara tuuba daaru tansil soxna nogoy jóob daayira maam jaara tuuba Xari Toob daayira maam jaara Touba Aliya soxna maam Busa Mbàkke Faadil daayira maam jaara Touba Kër Ma Jaw soxna Ndumbe Kante daayira maam jaara Touba Daaru Salaam Njenne soxna Faatu Gàdd Ka daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna maam Busa Ba daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Afsa Ndong daayira maam jaara Touba Daarul Manaan soxna Ummi Sekk daayira maam jaara Touba Daarul Xuddoos deuxième garage soxna Ndey Sila daayira maam jaara Touba Sañtu Daara soxna Dabaka daayira maam jaara Touba Kornisu Gede soxna Nagoy Caam daayira jaara tuuba daarul manaan soxna faati góora mbay daayira maam jaara tuuba saamuk sëriñ abdulatif soxna maam faati jóob daayira maam jaara tuuba xaayira soxna ndey mbàkke daayira maam jaara tuuba tawfeex soxna mbenn saar daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna awa mbuub daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos soxna coro jeng daayira maam jaara tuuba mbayeen soxna anta ja daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna soodaloo daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna anta faam daayira maam jaara tuuba kër ma jóob soxna asu jóob daayira maam jaara tuuba cawaan soxna Busa Géey daayira maam jaara Tuuba Mbusoobe soxna Ñaasa Saar daayira maam jaara Tuuba Mbàkke Baari soxna Faati Jóob daayira maam jaara Tuuba Xaayira soxna Sofi Saaw daayira maam jaara Tuuba Ndaam soxna maam Busa Juuf daayira maam jaara Tuuba Daarul Manaan Pàkku Xelkoom soxna Aram Mbeng daayira maam jaara Tuuba Paaleen Mbàkke soxna Xayaar Amar daayira maam jaara Tuuba Yëmbal soxna maam Busa Faal daayira maam jaara Tuuba Ngoy a Silla soxna Ami Juuf daayira maam jaara Tuuba Ndaam Busra soxna Bintu Lo daayira maam jaara Tuuba Cees soxna Géy daayira maam jaara tuuba bassin gambi soxna jooje fay daayira maam jaara tuuba bustaan soxna awa jeng daayira maam jaara tuuba daqaar mbay soxna awa faal daayira maam jaara tuuba lewna mbay soxna ami jenn daayira maam jaara tuuba kaloya kuuta soxna anta njaay daayira maam jaara tuuba buli jama soxna xemes puy daayira maam jaara tuuba cees soxna faatma jeng daayira maam jaara tuuba daaru tansil soxna xujja ture daayira maam dakar soxna maam jaara faal daayira maam jaara tuuba itali sëriñ fàllu lay jaara tuuba ngaay soxna njaaye géy daayira maam jaara tuuba ñaari baay faal soxna ami mbàkke daayira maam jaara tuuba asalem 2 soxna jobbe faal daayira maam jaara tuuba guy mbëtt sëy soxna awa cubb daayira maam jaara tuuba xayra 2 soxna ndey juuf daayira maam jaara tuuba daaru rahmaan soxna ami loo daayira maam jaara tuuba nimsaat soxna xujja seen daayira maam jaara tuuba guy murit kolobaan soxna ndaama loo daayira maam jaara tuuba xayra 2 soxna koddu jóob daayira maam jaara tuuba kër ñang soxna maam yaasin kan daayira maam jaara tuuba baari saatol soxna daba géey daayira maam jaara tuuba jeng mbaa mbooj luga soxna sayna bu silla daayira maam jaara tuuba si xawga soxna jaal géey daayira alminatil wal hidaaya tuuba saam soxna faati jeng daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna coro juuf daayira maam jaara tuuba yoonu daaru rahmaan soxna ndaak seen daayira maam jaara tuuba daaru tansil busra soxna maam faati ba daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos quartier bëgg sëriñ bamba soxna siini mbay daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna binduloo daayira maam jaara tuuba soxna loota sek daayira maam maam jaara tuuba jurbel soxna nday ba daayira maam jaara tuuba cité watal louga soxna màggat jóob daayira maam jaara tuuba ndar soxna fatim taal daayira maam jaara tuuba fora soxna faati kan daayira maam jaara tuuba pasi soxna xadija daayira maam jaara tuuba yëmbal soxna faama ñang daayira maam jaara tuuba mbuur soxna géy daayira maam jaara tuuba dakar soxna awa faal daayira maam jaara tuuba géejaway soxna ndey njaay daayira maam jaara tuuba caaroy gaar soxna mbenn mbàkke daayira maam jaara tuuba ndaween joko soxna murit ba daayira maam jaara tuuba cilma Sanxa soxna Faama Lo daayira maam jaara Touba Njóobeen soxna Faat Siise daayira maam jaara Touba Saam soxna Daaro Sall daayira maam jaara Touba Ndar soxna Marem Kamara daayira maam jaara Touba Mérina Dakar soxna Jaal Faal daayira maam jaara Touba Daarul Minan Guy Ndaween soxna Tuuti Jaxate daayira maam jaara Touba Mbelleñ Gakku soxna Faat Njaay daayira maam jaara Touba Njaageen Murit soxna Tabara Wadd daayira maam jaara Touba Mbarum Jóob soxna Mbeen Jóob daayira maam jaara Touba Ngayeen soxna Sayka Jaga daayira maam jaara Touba Asalem soxna Ayda Sow Sow daayira maam jaara Touba ndongo soxna Nogoy ndongo daayira maam jaara Touba Mbour soxna Adja Awali daayira maam jaara Touba Samsam 2 Dakar soxna Aram Kebe daayira maam jaara Touba Mbour Onkar soxna Rokhaya Seck daayira maam jaara Touba Cité Gendarmerie Dakar soxna Fat Sarr soxna Maylo daayira maam jaara soxna Ami Cissé daayira soxna Bousso Dieng daayira soxna Koduba daayira maam soxna Bousso Si daayira maam jaara tuuba sidd Louga soxna ndey faam daayira maam jaara tuuba caaroy Dakar soxna faat Diop daayira maam jaara tuuba Guinée Bissau soxna awa jaw daayira maam jaara tuuba siin ma kumba lëy soxna isa lëy daayira maam jaara tuuba daaru njogub soxna matikan daayira maam jaara tuuba Kébémer soxna bintu Diop daayira maam jaara tuuba daaru gay soxna faat seen daayira maam jaara tuuba bami soxna bintu Diop daayira maam jaara tuuba njaañ faal soxna awa faal daayira maam jaara tuuba celli soxna faat faal daayira maam jaara Diouf soxna Binta Faal daayira maam jaara Touba Parba Dieng soxna Marem Dieng daayira maam jaara Touba Lewna Dieng soxna Raat Faal daayira maam jaara Touba Kédougou soxna Asi Gueye daayira maam jaara Touba Kédougou soxna Ndey Cissé daayira maam jaara Touba Daaru Salaam Payar soxna maam Ami Mbacke Murtada daayira maam jaara Touba Lambaay soxna Ndey Seen daayira maam jaara Touba Mbul Lambaay soxna maam Yaasin Seen daayira maam jaara Touba Tayba Siin Njaay soxna Kumba Jóob daayira maam jaara Touba Koki Jóob soxna Faati Mbacke Gueye daayira maam jaara Touba Jannatul Mahwa soxna Sambeen Géy daayira maam jaara Tuuba Marsasum soxna Yaasin Baaji daayira maam jaara Tuuba Dendey soxna Ndumburtin daayira maam jaara Tuuba Daarul Minen Guy Ndaween soxna Seyna bu Ndaw daayira maam jaara Tuuba Daaru Kan soxna Aada Géy daayira maam jaara Tuuba Kunkang Njalleen soxna Kumba Njaay daayira maam jaara Tuuba Gëñi soxna Seyna bu Seen daayira maam jaara Tuuba Caaroy Kaw Dakar soxna Bintu Ndooy daayira maam jaara Tuuba Cees soxna Xadi Silla daayira maam jaara Tuuba Jaksaaw soxna Nenne Ñang daayira maam jaara Tuuba Mbàkke soxna May Daaru Njaay Njaay daayira maam jaara Touba Samsam Dakar soxna Soda Mbay daayira maam jaara Touba Daaru Tubbeen Mbuur soxna Moomi Géy daayira maam jaara Touba Pikin soxna Ummi Faal daayira maam jaara Touba Bangoy soxna Faati Njaay daayira maam jaara Touba Medina Gunaas soxna Faati Diba daayira maam jaara Touba Benn Barak soxna Faati Faal daayira maam jaara Touba Casamance Lintin soxna Tuuti Jaw daayira maam jaara Touba Njum Gen soxna maam Busso Sek daayira maam jaara Touba Dawax Ba soxna Xadi Mbuub maam jaara tuuba dakar soxna ndey mbay daayira maam jaara tuuba dakar paku lambaay soxna mbenn juuf daayira maam jaara tuuba gede soxna mbaacu njaay daayira maam jaara tuuba seseen mbuur soxna dibaan jóob daayira maam jaara tuuba binjona soxna awa caam daayira maam jaara tuuba kaarang soxna maam jaara seen daayira maam jaara tuuba pikin soxna biti jéen daayira maam tuba tuuba peex soxna xurëje géey daayira maam jaara tuuba mbamba soxna penda ja daayira maam jaara tuuba dakar soxna ndàggéey soxna faatu jóob jale daayira maam jaara tuuba ngàcc faal soxna astu jaañ daayira maam jaara tuuba ndaam kër siri soxna ndumbe jenn daayira maam jaara tuuba ndonga soxna mbisin njaay maam jaara tuuba kambureen dakar soxna rama njaay daayira maam jaara tuuba mbàkke saalum soxna ndey kumba faal daayira maam jaara tuuba mbul sookoon soxna penda juuf daayira maam jaara tuuba ndom soxna faatu seen daayira maam jaara tuuba parcelle unité 7 soxna ndey géy daayira Guèye daayira maam jaara Touba Jurbel soxna Ami Njaay daayira maam jaara Touba Njaañ soxna Sooda Jóob daayira maam jaara Touba Sam Gawa soxna Faat Juuf daayira maam jaara Touba Caaroy soxna Muslimatu Mbàkke bintu Alhaaji Baara Mbàkke Fadilu daayira maam jaara Touba Kër Bayla soxna Bintu Faal daayira maam jaara Touba Cité Gàddaay soxna Ndey Kanji daayira maam jaara Touba Guy Siyaare soxna maam Faati Njaay daayira maam jaara Touba Dakar soxna Ndey Caam daayira maam jaara Touba Ndar soxna Faatu jaara géey daayira maam jaara tuuba ndar soxna maam maam jaara tuuba ndar soxna aji ndey silla daayira maam jaara tuuba mbuur soxna ayda lëy daayira maam jaara tuuba jàmma gën mbuur soxna maam bu solo daayira maam jaara tuuba jàmma gën un mbuur soxna ami jaase daayira maam jaara tuuba mbuur son résidence soxna mbaaco ture daayira maam jaara tuba tiwaawoon pël soxna njeeta géey daayira maam jaara tuuba mbaari jàmm soxna sukkay nduur daayira maam jaara tuuba géejawaay soxna faatu ki ne mbegere daayira maam jaara tuuba ndéeni biram ndaw soxna ñaaña ndooy daayira maam jaara tuuba daarul minan mbàkke soxna asu mbàkke madina daayira maam jaara soxna ndaw daayira maam jaara tuuba kër masaar soxna faatu dem daayira maam jaara tuuba njileween soxna jaal sàll daayira maam jaara tuuba muslaaj soxna bintu mbàkke daayira maam jaara tuuba kër ñang soxna fatim faal daayira maam jaara tuuba njiiti xabbaan soxna xadi ñang daayira maam jaara tuuba madiyaana soxna maane gajaga daayira maam jaara tuuba xayra soxna afse beey daayira maam jaara tuuba baddi jeng soxna wali jeng daayira maam jaara tuuba daaru salaam gaawaan soxna mbaaco jaañ daayira maam jaara tuuba kawlax soxna faatma njaay daayira maam jaara tuuba moske soxna bintu jóob muudu masamba daayira maam jaara tuuba rudda buun dakar soxna ummi jóob daayira maam jaara tuuba madiyaana soxna asu balle juuf daayira maam jaara tuuba daarul manaan soxna faatu jaxate daayira maam jaara tuuba wara soogi soxna ndey gay daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna anta faal daayira maam jaara tuuba soxna faat jaañ daayira maam jaara tuuba madiana soxna mati jaañ daayira maam jaara tuuba jàmm gën dakar soxna faat jóob daayira maam jaara tuuba gede soxna aminata sëy daayira maam jaara tuuba guy faatu mayga soxna ndey faal daayira maam jaara tuuba kawlax soxna faat ma njaay daayira maam jaara tuuba coloñ soxna kumba jeewo njaate daayira maam jaara tuuba yugura soxna awa sëy daayira maam jaara tuuba njoobeen mayamar soxna aram njaay daayira maam jaara tuuba lappe soxna maam faati mbakke daayira maam jaara tuuba kër ma kumba njaay soxna njaxat sa Sall daayira maam jaara Touba Kajoor soxna Asu Mbàkke daayira maam jaara Touba Ndaar Sall soxna Caama Sall daayira maam jaara Touba Kaneen soxna Fatikan daayira maam jaara Touba Daaru Jenn soxna Ayda Siise daayira maam jaara Touba Kokki soxna Faati Aram Njaay daayira maam jaara Touba Daaru Kan soxna Xadi Joob daayira maam jaara Touba Tawfiix Saalum soxna Gati Géy daayira maam jaara Touba Madina Caaroy Dakar soxna Xadi Kamara daayira maam jaara Touba Géejawaay soxna Ataloo daayira maam jaara Touba Kokki Kër Ñang soxna Anta Njaay daayira maam jaara tuuba kër sëriñ omar jóob soxna awa mbay daayira maam jaara tuuba jannatul firdawsi soxna aba njaay daayira maam jaara tuuba tayba kaloom soxna ngóone loo daayira maam jaara tuuba kewre tàmbeedu jurbel soxna ndumbe tàmbeedu daayira maam jaara tuuba saam soxna ummi géey daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna njaxat jóob daayira maam jaara tuuba looyeen soxna sooda faal daayira maam jaara tuuba okaas daarul manaan soxna xujja jeng daayira maam jaara tuuba gar bu mag soxna fasila daayira maam jaara tuuba soxna aji kodduloo daayira maam jaara tuuba gaar bu ndaw soxna mberi gay daayira maam jaara tuuba jannatul firdawsi marché ndigal soxna silla daayira maam jaara tuuba siiwalka soxna afsa njaay daayira maam jaara tuuba pam faam soxna màggat faam daayira maam jaara tuuba gëti saki soxna isakase daayira maam jaara tuuba fora subaay laat soxna maam awa mbake daayira maam jaara tuuba kër masaar soxna afsa si daayira maam jaara tuuba kër njaxaay soxna nafi lay daayira maam jaara kura bajaan daayira maam jaara tuuba Manaan soxna Daba Jaw daayira maam jaara Tuuba Daarul Manaan soxna jaara Siise daayira maam jaara Tuuba Bari Itaali soxna Xadi Mbuub daayira maam jaara Tuuba Kaneen Njob soxna Daba Kan daayira maam jaara Tuuba Daarul Manaan soxna Mbaaco Jeng daayira maam jaara Tuuba Umul Xuraa soxna Ndaak Fay daayira maam jaara Tuuba Daarul Muxti soxna Siini Géy daayira maam jaara Tuuba Daarul Manaan soxna Sooda Joob daayira maam jaara Tuuba Forboor soxna maam Busa Caam daayira maam jaara Tuuba Kalyaari Itaali soxna Ndey Jaw daayira maam jaara Tuuba Daaru Faal Jogo soxna Faatu Jóob daayira maam jaara Tuuba Cees soxna ummi Samb daayira maam jaara Tuuba Madiana Siis soxna Baali Mbakke daayira maam jaara Tuuba Kër gi Jaw soxna Ramata Faal daayira maam jaara Tuuba la ñaar soxna Maritin daayira maam jaara Tuuba Njenne Njum soxna Njóoba Faal daayira maam jaara Tuuba Njóob soxna Jaal Jóob daayira maam jaara Tuuba Mewndu soxna Faati Jaxate daayira maam jaara Tuuba Kër Masaar soxna Soxdu Mbakke daayira maam jaara Tuuba Jatmel soxna Ndey Jóob daayira maam jaara Tuuba Daaru Saam soxna Ndey Jóob daayira maam jaara Tuuba Touba Ndoob Lay soxna Koddu Jaañ daayira Maam Jaara Touba Daaru Rahman 2 soxna Mbeen Jaxate daayira Maam Jaara Touba Kër Musa soxna Nogoy Njaay Sek daayira Maam Jaara Touba Kër Seega soxna Jama Silla daayira Maam Jaara Touba Aéroport soxna Maam Jaara Mbay daayira Maam Jaara Touba Daaru Jaañ soxna Caana Ñaan daayira Maam Jaara Touba Ndëkkta Gay soxna Ami Mbooj daayira Maam Jaara Touba Xayra soxna Daba Njaay daayira Maam Jaara Touba Samali soxna Nogoy Géen daayira Maam Jaara Touba Golfu Dakar soxna Moomi Mbakke daayira maam jaara tuuba itaali soxna moomi mbàkke daayira masalikul jinaan weli ngara soxna ndey njaay daayira maam jaara tuuba pekkees soxna màggat mbay daayira maam jaara tuuba tewru géy soxna ndey mbàkke daayira maam jaara tuuba xàncax soxna fay daayira maam jaara tuuba daaru ndooy jokko soxna musli njaay daayira maam jaara tuuba daarul xudoos soxna baali mbàkke daayira maam jaara tuuba daaru faal soxna caana cubb daayira maam jaara tuuba kër ma xaali soxna sofiyatu gàkku daayira maam jaara tuuba dawax gajaga soxna matiley daayira maam jaara tuuba daaru fanay soxna astu mbàkke jóob daayira maam jaara tuuba pekees soxna jaara jóob daayira maam jaara tuuba gëñi kër kàbb soxna daba jeng daayira maam jaara tuuba xawlu soxna ndey kumba jóob daayira maam jaara tuuba jidda caaro yi kaw soxna faati sek daayira maam jaara tuuba cell géej soxna farma jóob daayira maam jaara tuuba sigal cuun soxna ayda gay daayira maam jaara tuuba makka cuun soxna busa njaay daayira maam jaara tuuba ndaari soxna maam kumba kan Touba HLM 5 soxna maam jaara fay daayira maam jaara Touba Thiès Mbour 3 soxna Degen Dieng daayira maam jaara Touba Arafat Daaru Muxti soxna Njóoba Caam daayira maam jaara Touba Ndondol Ñamaan soxna Awa Fay daayira maam jaara Touba Jannatul Mahwa soxna Say Ngom daayira maam jaara Touba Daaru Salaam Fatick soxna Koddu Diouf daayira maam jaara Touba Kër Daam soxna Ndey Faatu Diouf daayira maam jaara Touba Kër Ibra Gay soxna Ami Gay daayira maam jaara Touba Kër Asan soxna Kinne Joob daayira maam Sembène Seck daayira maam jaara Touba Pikine Dakar soxna Awa Gassama daayira maam jaara Touba Forasu Baylaat soxna Ami Silla daayira maam jaara Touba Kër Mbakar soxna Juma Ñang daayira maam jaara Touba Tayba Mutufa soxna Naar Diouf daayira maam jaara Touba Sanci Ndong soxna Daba Gay daayira maam jaara Touba Kawlax Sëriñ Basiru Mbay daayira maam jaara Touba village artisanal soxna Rahma Thiam daayira Matlabul Fawseyni Touba Caaroy Dakar Sëriñ Njaxat Gay daayira maam jaara Touba Abdou soxna Awaas Gay daayira maam jaara Touba Daarul Minan soxna maam Bousso Dieng daayira maam jaara Touba Njujuuf Cangin soxna Faatu Mbay daayira maam jaara Touba Avenue Blaise Diagne soxna Yaasin Dieng daayira maam jaara Touba Castor soxna Musli Faal daayira maam jaara Touba kilomètre cinquante soxna Aminata Ñaan daayira maam jaara Touba Toubeen soxna Aada Top daayira maam jaara Touba Géejaway sàkku xam-xam soxna maam jaara Ngom daayira maam jaara Touba marché Asalem soxna Seyna bu Njaay daayira maam jaara Touba marché Jàmm Gën Dakar Fall daayira maam jaara Touba Daaru Salaam Kabig soxna Aysatu Géy daayira maam jaara Touba marché jàmmalaay ak limaamulaay soxna Ndey Jaañ daayira maam jaara Touba teenu maam Cheikh soxna Ndey Fay daayira maam jaara Touba Sewaan soxna Koddu Fay daayira maam jaara Touba Sunatu Rasul soxna Njaay daayira maam jaara Touba nga xam 1 Sëriñ Alhaaji Ngisali Njaay daayira maam jaara Touba Malika Dakar soxna Faatu Wad daayira maam jaara Touba Kër Tafsir Maruba Cuun Tëngéej daayira maam jaara Touba Fass Mbaaw soxna maam jaara maam jaara tuuba ndindi soxna faata ñang daayira maam jaara tuuba mbuur soxna nagoy sek daayira maam jaara tuuba gumbala soxna faatu jaw daayira masaalikul jinaan mbuur sëriñ mbàkke ngom daayira matlabul fawsayni tuuba kër masaar soxna koddu sow daayira miftaahu sahaada tuuba mbuur soxna sooda ture daayira maam jaara tuuba njuufeen soxna bintu ndaw daayira maam jaara tuuba caaroy dakar soxna maam faati sek daayira maam jaara tuuba daarul manaan senelek soxna faati faal daayira maam jaara tuuba njagañaaw soxna aram fay daayira maam jaara jaara Touba Kër Massar Madina Kel soxna Anta Mbacke daayira maam jaara Touba Kaffrine soxna Fatou Sow daayira maam jaara Touba Dagana soxna Faama Sow daayira maam jaara Touba Daaru Nahim soxna Boy Aaw daayira maam jaara Touba Sikap Mbaaw soxna Mariama Diop daayira maam jaara Touba Parcelles Unité 17 soxna Ndey Njaay daayira maam jaara Touba Thiès Cité Kër Xaadim soxna Kolle Seck daayira maam jaara Touba Kaolack Merina Baye soxna Asu Mbacke Ndoy daayira kan sul muhtadin Touba RTS Serigne maam jaara Touba Mérina Mbabba soxna Seynabu Wañ daayira maam jaara Touba Parcelles Unité 10 soxna Faama Seck daayira maam jaara Touba Pikine Ginnaaw Raay soxna Faama Siise daayira maam jaara Touba Daaru Cubb soxna Nogoy Njaay daayira maam jaara Touba Kër Masaar soxna Awa Diouf daayira Nooru Daarayni Serigne Babacar Faye daayira Masalikul Jinaan Serigne Tayba Njaay daayira maam jaara Touba Xayra Yakay Seng soxna Ali Makka daayira maam jaara Touba Thiès soxna Ayda Jaak daayira maam jaara Touba Kër Maxujja soxna Maram Fall daayira maam jaara Touba Pawlu Etali Serigne Aliou Thiam daayira Maam Jaara Touba Mudini Fouta soxna Faati Mbàkke Diop daayira Maam Jaara Touba Jokkul Mbuur soxna Mati Seen daayira waajuru Maam Jaara ye ca Poroxaan soxna Njaxat Diop daayira Maam Jaara Touba Tindoodi soxna Ami Touré daayira Maam Jaara Touba Kuroko Côte d'Ivoire soxna Ndey Siise daayira Maam Jaara Touba Beyti Gueye soxna Binti Gueye daayira Maam Jaara Touba Xayra soxna Mbeen Seen daayira Maam Jaara Touba Géejawaay soxna Ndey Yaali daayira Maam Jaara Touba Marché Sam soxna Soda Sarr jaara tuuba géejawaay soxna daba juuf daayira maam jaara tuuba kër sëriñ abdoulahi jaw soxna mbaaco jeng daayira maam jaara tuuba parcelle unité 20 sëriñ mudu jóob daayira maam jaara tuuba tëngéej sëriñ ibbu maane daayira maam jaara tuuba mbuur soxna faatu si daayira maam jaara tuuba ashaabul jannati kër masaar soxna awa jenn daayira maam jaara tuuba daru salaam soxna mbayang jóob daayira maam jaara tuuba grand dakar soxna aram daayira maam jaara tuuba buntu pikin soxna njaaña sëy marché njaareem soxna Adja Fadam Mbaye daayira maam jaara Touba Kër Massar soxna Juma Seen daayira maam jaara Touba Caaroy Samsam 1 soxna Fan Ndiaye daayira maam jaara Golf soxna Mati Diouf maam jaara tuba Cité Ipres soxna Dior Ndiaye daayira maam jaara Touba mairie Dakar Serigne Ibrahima Ngom daayira maam jaara Touba Ngapuru soxna Abi Sarr daayira maam jaara Touba Jurbel askanu Lawbe soxna Jama Sow maam jaara Touba Dakar soxna Busa Fay daayira maam jaara Touba Njaarga soxna Ndey maam jaara Touba Jurbel soxna Bakkan Caam daayira maam jaara Touba Njaxate xaaxaam soxna Maane Faal daayira maam jaara Touba Poste Caaroy soxna Njóoba Ñang daayira maam jaara Touba Daarul Xudoos quartier Bëgg Bamba soxna Siini Mbay daayira maam jaara Touba Yaama Yaamu Sukoro Côte d'Ivoire soxna Ndumbe Sek daayira maam jaara Touba Sape Toro Côte d'Ivoire soxna Sala Cuun daayira maam jaara Touba Loora Escale soxna Amika daayira maam jaara Touba Daabay Saar soxna maam Siini Géy daayira maam jaara Touba Njaween géejawaay cité jungoo soxna faatu njaay daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna faati géy daayira maam jaara tuuba mbar mbàkke soxna faati aydara daayira maam jaara tuuba xadama sidixin koomo itali soxna ki nembow daayira maam jaara tuuba daarul xuddoos saalum soxna may géy daayira maam jaara tuuba daarul karim soxna maryama mbeng daayira maam jaara tuuba umul xura daarul xafoor soxna maymuna aan daayira maam jaara tuuba parcelle unité 22 soxna xujja kante daayira maam jaara tuuba nayoobe soxna anta sey daayira maam jaara tuuba gara miraasu daaru muxti soxna bintu loo daayira masaalikul jinaan tuuba caaroy sant yàlla soxna aji maryama njaay daayira naylul maraam tuuba géejaway soxna faat jeng daayira maam jaara daaray kaamil kër masaar soxna awa juuf daayira maam jaara tuuba parcelle dakar soxna faatu sey njóob daayira maam jaara tuuba coon mbakke soxna aji sooda faal daayira maam jaara tuuba weccen sa itali soxna ndey faal daayira maam jaara tuuba ngéyeen soxna jaal njaay daayira maam jaara tuuba daaru salaam soxna penda jóob Asalem soxna Rama Gueye daayira maam jaara Touba Terrasse soxna Jëmbuloo daayira maam jaara Touba maam jaara Touba Tawfeex soxna Kumba Gueye daayira maam jaara Touba Guy Mori Dakar soxna maam jaara Siñaan daayira maam jaara Touba Bentali dakaar soxna Salimata Sall daayira maam jaara Touba Ngogom soxna Saynabu Fay daayira maam jaara Touba Jeey soxna Xadi Caw daayira maam jaara Touba Soomem soxna Awa Diouf daayira maam jaara Daarul Manaan soxna Màggat Ñang daayira maam jaara Touba Musoobe Lasar soxna xadi njaay daayira maam jaara tuuba daaru tansil soxna kan daayira maam jaara tuuba sam faal soxna njaaye faal daayira maam jaara tuuba marché maam jaara soxna ngayta gay daayira maam jaara tuuba xayra deux soxna anta faal daayira maam jaara tuuba njool soxna ko du wadd daayira maam jaara tuuba njandaate mbay soxna jobbe mbay daayira maam jaara tuuba ndindi kër sëriñ afe soxna ndey géy daayira maam jaara tuuba yoonu baxdaad soxna gay faal daayira maam jaara tuuba jawaar loom soxna anta faal daayira maam jaara tuuba daarul ñan soxna jaara jëng sil daayira maam jaara tuuba gaar bu ndaw soxna maam say sila daayira maam jaara tuuba kër sëriñ jabal sàll soxna ndey sàll daayira maam jaara tuuba bombaali soxna abi daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna xujje njaay daayira maam jaara tuuba nguy soxna ami daayira maam jaara jurbel kër seex soxna maryama mbàkke daayira maam jaara tuuba kap sikirin soxna faatu kanji daayira maam jaara tuuba njaaña soxna silla mbay daayira maam jaara tuuba mbengeen soxna ndong daayira maam jaara tuuba daarul minan Ndangaan soxna Jaw Géy daayira Maam Jaara Touba Daaru Samb Thiès soxna Binta Saar daayira Maam Jaara Touba quartier Maam Jaara soxna Faatu Samb daayira Maam Jaara Touba Ndamaatu soxna Nenn Faal daayira Maam Jaara Touba Gàdd Ñaxal soxna Jaxu Seen daayira Maam Jaara Touba Fas Touré soxna Ndey Géy daayira Maam Jaara Touba quartier Maam Jaara soxna Ndey Faal Saar daayira Maam Jaara Touba Daaru Salaam soxna Xadi Touré daayira Maam Jaara Touba Mbalmbi Lambaay soxna Faati Alla Njaay daayira Maam Jaara Touba Jannatul Mahwa Serigne Cheikh maam jaara tuuba xayra 2 soxna ami li daayira maam jaara tuuba guy mbind soxna xadija daayira maam jaara tuuba gede soxna ami ñang géy daayira maam jaara tuuba mbàkke baari soxna pende siise daayira maam jaara tuuba mbampna soxna nogoy seen daayira maam jaara tuuba njare soxna ndey ture daayira maam jaara tuuba jëmmooy soxna caane faal daayira maam jaara tuuba gede soxna ndey ngëneel daayira maam jaara tuuba daarul minan soxna njaañe géy bintu sëriñ muudu géy daayira maam jaara tuuba ndaamaatu soxna mati joob daayira maam jaara tuba daarul xudus soxna xadi dem daayira maam jaara tuba daaru salaam gede soxna mbàkke njaay daayira maam jaara tuba bustaan soxna awa saaxo daayira maam jaara tuba medin jeng soxna anta sek daayira maam jaara tuba jéey soxna ndey faal daayira maam jaara tuba ndaamaatu soxna ndey njaay daayira maam jaara tuba njaareem soxna awaka daayira maam jaara tuba daarul xudus kër wele soxna ami ñang daayira maam jaara tuba tool silla soxna awa seex pen daayira maam jaara tuba quartier maam jaara soxna daba fay daayira maam jaara tuba Touba Dakar soxna Seynabu Fay daayira maam jaara Touba Ndaam soxna Njóoba Jeng daayira maam jaara Touba Ngayeen soxna Say Gajaga daayira maam jaara Touba Kër Njóogu soxna Awa Njaay daayira maam jaara Touba Càcco soxna Kumbaka daayira maam jaara Touba Asalem soxna Ayda Sow daayira maam jaara Touba Mbuur soxna Aji Awali daayira Sahaadatul Muridina soxna Asto Xulle daayira maam jaara soxna Faati Njaay daayira maam jaara Touba Jurbel soxna Adama Faal daayira maam jaara Touba Jurbel soxna Awa géey daayira xayrul wal minnati tuuba daarul manaan soxna aji ndumbe géey daayira yi bindu woon ci sëriñ cheikh buso imaam ca poroxaan daayira maam jaara tuuba kër sëriñ mbay saar soxna mbarka saar daayira maam jaara tuuba riite jaw soxna ndey géey daayira maam jaara tuuba tëngéej ndar gu ndaw soxna faama jaxate daayira maam jaara tuuba caaroy dakar sëriñ mustapha sow daayira maam jaara tuuba kayaar saar luga sëriñ fàllu géey daayira maam jaara tuuba sirekunda gambi sëriñ xaadim mbuub daayira maam jaara tuba ndaamaatu soxna faati géey daayira Touba yëmbal jàmmalaay soxna Mati Seck daayira maam jaara Touba Ganjaay soxna Aji Kuré Diouf daayira maam jaara Touba yëmbal soxna Nogoy Sila daayira maam jaara Touba Daaru Njaay soxna Faati Caam daayira maam jaara Touba Cey Cey soxna Faati Fay daayira maam jaara Touba Jaakalis Saane soxna Faati Dramé daayira maam jaara Touba Sadio soxna Faatu Mbàkke daayira maam jaara Touba marché asalem seng soxna Maymuna Mbàkke bintu Serigne Mustapha Bachiru daayira maam jaara Touba Gueule Tapée Dakar soxna Aja Faati Samb daayira maam jaara Touba Guy Kuli soxna Aja Thiam maam Faati Gueye daayira maam jaara Touba Géejawaay Batuwaar soxna aji Ayda Thiam daayira maam jaara Touba Géejawaay soxna Astu Mbay daayira maam jaara Touba Sirekunda soxna Faati Njaay daayira maam jaara Touba Kër Mbukki soxna Nogoy Diba daayira maam jaara Touba Jawbe soxna Xujja Jaw daayira maam jaara Touba Déeni Biram Ndaw soxna Ngone Ngom daayira maam jaara quartier Dora Aw Dakar soxna Faat Diop Baye Fall daayira maam jaara Touba Jabal soxna Aysatu Saar daayira Subula Salaam Touba Mbuur Serigne Pape Moodu Diouf daayira maam jaara Touba Càccoor soxna Kumba Ka daayira maam jaara Touba aselem siis soxna Ayda Sow daayira maam jaara Touba Kër Njoogu soxna Awa Ndooy daayira maam jaara Touba aselem 2 soxna Mati Sall daayira maam jaara Touba Njekkinaan soxna Buso Sill daayira maam jaara Touba Garasu Dakar soxna Ami Njaay daayira maam jaara Kuunoon soxna Jaañ daayira maam jaara Touba Kër Mbay Jéey soxna Faat Saar daayira maam jaara Touba Saam soxna Ami Kan daayira maam jaara Touba Ndorang soxna Mbeen Sill daayira maam jaara Touba Daaru Salaam Bokki Barga soxna alimatu sek daayira maam jaara kër masaar unité 9 sëriñ paap jaxate daayira maam jaara touba ouest foire soxna ngayta faal daayira maam jaara touba marché sam soxna sooda saar maam jaara touba parcelle aseni soxna magu sila daayira maam jaara touba pikin soxna nogoy juuf daayira maam jaara touba buntu pikin paku lambaay soxna mbaacu sey daayira maam jaara touba grand dakar soxna aram mbay daayira maam jaara touba jaxaay dakar soxna anteloo daayira maam jaara touba arsantin sëriñ njagaka daayira maam jaara école bi njaay soxna maryamu faal bintu sëriñ mortala faal daayira maam jaara tuuba daaru salaam séréer soxna astu ngom daayira maam jaara tuuba gembe soxna mbenn géy daayira miftaawul xuyóori wal maraam soxna may caw ak sëriñ jiili jóob loolu moo di daayira yi nga xam ne bindu woon nañu ci 2019 incha allahu taala bu ëllëgee nu andil leen daayira yi nga xam ne dañoo aju ci ay fédération ak seeni jawriñ incha allahu taala noo ngi leen di fàttali yéeney mbokkum taalibe mi nga xam ne moo taxawal daayira salaatu jigéen ñi rawatina ñoom jigéen ñi salaatu ala ci ñoom la nañ fexe ba daayira bu ne lim ba mu am ci addiyaam ñu fexe ba def lim bu tol noonu ci ay salaatu ala nabi jébbal ko soxna jaara def ko addiyaam dolli ko ci liggéey bi ñu liggéeyal sëriñ tubaa ci soxna jaara mbokkum taalibe moom noo ngi koy bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fay ko aw yiw noo ngi delluwaat di ñaanal sëriñ muntaxaa sunu borom gën ko fee yàggal te defal ko ak wér dolli ko kàttan ba mu àggale yéene ci lislaam ak ñooñ lislaam di ñaanal sëriñ isaaxa mbàkke jëwriñu liggéey bi yàlla kàttanal ko ba moom ñamba njàmbaas bi nga xam ne njàmbaas na ko ci sër bi sunu borom kàttanal ko mu àggale yéenam joo jëpp ci barke Serigne Touba noo ngi delluwaat di leen sant di leen gërëm di leen ko waxe woon ci tàmbali bi rappel bi dañu leen koy ñaaxe di leen ko kañe di leen ko soññe di leen jottale ci canti Serigne bi ak ngërëmam te ñaan yàlla nangul na sunu liggéey ci barke Serigne Touba defal na ko muy sababu texe ñeel sunuy wayjur ak bokki jullit yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ahi taala wa barakaatuhu ahi taala wa barakaatuhu ahi taala تعالى وبركاته الله تعالى وبركاته الله تعالى وبركاته الله تعالى وبركاته الله تعالى وبركاته الله تعالى وبركاته الله تعالى وبركاته الله تعالى